الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين ginnaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ñuy nuyu mbokk yëpp di nuyu itam kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di ci jiital euh, Cheikh Mouhamadou Diop Massamba al Abdul Jabbar ku ne xam na ne daje bi li ko waral ak li sabab si bokk na ci daje yi nga xam ne ñoo gën ci daje yi ndax daje la boo xam ne la ko dal ak la ko ëmb mooy xam-xam ak njub ak lépp loo xam rek dafay tegtale lu baax loolu nag mooy ndono lislaam mooy ndono itam ah, ay maamam mooy ndono ndono waajur waajur itam xam naa bala ñu dugg ci loolu itam wax jotaay bi naka laay demee insha allahu rabbi buñ defee présentation bi ñu bëgg a def dinañ jox suñu Moodu incha allah mu ubbi ci kàddooy euh, waa dëkk bi ak las aju lépp waaye ñu ngi para parato euh, bi suñu Cheikhouna Joxaane ak sëriñ Cheikh Mbacke ak euh, ak oustaz Dio ak oustaz Ndiaye bu ko defee allah rabbi liñ fa liñ fa nar mooy doon li nga xam ne euh, li aju ci téere bi nga xam ne moo ñu fi dajale ak itam lu aju ci dëkk euh, lu aju ci dëkk bala ñoo dugg ci loolu itam danañ wax ki nga xam ne wala présenté waat donte xamees na ko sax ki nga xam ne moo def téere bi nga xam ne waxtaan bi dina euh, ci lay aju danañ xam ne waat mooy kan donte xam nañ ko nii waaye danañ am geneen xam ne bu yees goo xam ne danañ koo xam ne bala ñoo dugg ci téere bi loolu loolu lépp itam di koy ëmb mooy leen xam-xam ndax loolu ci la euh, lépp nekk lépp ci xam-xam ci la lépp nekk xam-xam ci la defaru nekk xam ci la defaru àllaaxira itam nekk bu mu ci xam-xam yi nag rawatina xam-xam bi nga xam ne moom al ilmu naafi xam-xam bu am njëriñ ndax loolu kat mooy li nga xam ne moo la fi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bàyyi woon ci loolu itam la nekkoon moo tax mu wax ne wa taalamu bi anna ilman wa amal huma wasilata wasilata saadati ajal na ngeen xam ne xam-xam ak wala xam-xam ak pratique maanaam xam-xam ak jëfe am nañu ko firi xam-xam ak liggéey na ngeen xam ne ñooy ñaari jumtukaay yi nga xam ne bu ci nit ki jaaree dana am texeg àdduna dana am texeg àllaaxira moom itam dafa bokk ci e, sët yooyu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon ñaan durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiy al mustafa tajtahidu sët yooyu nga xam ne sëriñ bi dafa leen doon ñaan borom subhanahu wa xam ne duñ ju mukk ci di eh, liggéey liggéey bi nga xam ne moom la fi bàyyi woon te mooy loo xam ne dafay yeesal diin mooy li ràpp ci diine wala boog li nga xam ne nit ñi dëpp doy ko ci diine lu lu bari bari bari am ñu sa nekk ca liggéey boobu moom na dafa bokk ci ñooñu te mooy jàngale ak bind ak taarif ak sóobu nag ca yoonu gaañu baax loolu bokk na ci yi wund jotaay bi moom na ñu gën koo xam ci Cheikh Mouhamadou Diop ibnu Cheikh Amadou Fadal Cheikh Amadou ni ko ñëpp xamee mu gane jamono ci 1963 fii ci Ndindi ci kër Cheikh Amadou Fall ñu dund ko itam kenn ci man koo xam ne borom yi xususi yàlla borom yi ki ñu ko tuddee borom yi xususi yàlla la ku euh, bari ay jagle la ci seen Serigne ndax moom muy Cheikh Mamadou Diop Massamba moom bokk na ci mag ñi xam ne daanañ fóot yére Serigne bu bokk na ci ñi daan itam. Euh, topp ba boobu sëriñ bi bu demee ba sax maanaam wat moom itam nee nañu bi nga xam ne Cheikh Abdou Moustapha làqu na moom Cheikh Abdou Diom Sàmb mooy ki njëkk a jokk Cheikh Mamadou Fall ndax xam ngeen ne si Masamba Diom Sàmb moom Cheikh mag dafay teel a bàyyi ko dafay bàyyi ko lool man nga ak liggéeyam ci kër Sëriñ Touba lu ci ëpp Cheikh Amadou Diom Sàmb boobu moo ko def moo doon ku taxaw Cheikh Mamadou Fall la itam nag nee na Cheikh Modou Fadal taxaw ba mu taxawoon ak moom taxaw dafa utul néeg moom suñu moom du ñu Masamba ci biir këram néewaan ak jotaay boo xam ne suñu foofu dana ko toog si nekk eh, lépp jotaay boobu noonu ba loolu sax jaaxal nañu bare bare bare ci mag ñi nga xam ne ñoo doon ay mbokkam ak lenn ci eh, jabaru sëñ bi yàlla doogalee moom mu gane àdduna ci alterne bisu altine ci yoor yoor ba bis ba delsee itam euh, tasante ak bisum euh, nganale ga Cheikh Amadou Massamba ñëw fa Cheikh Amadou Fadal daal koy jox tur ndax mag ñi baaxoo nañoo def loolu baaxoo nañoo def loolu ndax bi mu demee ba doon mag moom si moom ñoom Samba mi nga xam ne mu tuddee dafa wutal sax ab taawam ci biir kër Cheikh Amadou mu di ko taxawul lam faraan taxaw jël ak ay euh, mbooloo la toppoon ci moom ak taal bi ñëpp jaxase ko doo ngay Cheikh Abdou Fadel ba kenn xàmmee du leen loolu lépp boo ko defee itam ginnaaw loolu nag euh, tegaat bi yu yàgg lu toll ak juróom-benn at wala juróom-ñaar Cheikh Abdou Fadel làq mu dem mbir gi foofa nag fa la dalee commencé am njàngam ci ku ñuy wax Sëriñ Abdou Khadim Bousso ginnaaw loolu itam ci ndigalul Sëriñ Moussa Fall si moom ngeen ko xam si Modou Moussa Diagne euh, yamal fa Sëriñ Abdou Fatah Fall moo ko fa jëlsee ci ndigalul jox ko Sëriñ Mor Mbaye Cissé mu boole ko Sëriñ Malick Diagne ak yeneen ak ak yeneen njabootu ñeneen ci njabootu Sëriñ Fadal bi foofa la nekk ba wattu alxuraanul karim euh, ba wattu alxuraanul karim itam commencé foofa ak njàng xam-xamam ba lañ ko doon mu jàng ko wala la nga xam ci jamono boobu ci xam ci majalis yi mu jàng ko fa ci la jóge dem Maroc ngir continuer ko am njàngum xam-xamam ginnaaw loolu itam demaat na Taahira Caire isit waaye dafay itam am njàng xam-xamam ginnaaw itam dem na France ci euh, université bu ñuy wax euh, defe na Sénat euh, waaye dafay itam am njàng xam-xamam doon fa jàngee économique ak comptable ak iqtisadiya wala muhasaba ginnaaw loolu nag ci la fa jógee nag dellusiwaat ci réew mi ci atum 1991 ci tënk rek ba mu dikkee ba tey nag li nga xam ne mooy ay yëngoom mooy li nga xam ne moom la mag ñi nekkoon wala boog awliyaullah yi sax laay wax ndax am na yoon boo xam ne nit mën na àgg ci dayoo baax te lu ijtihaadam du ci àgg moom nag dafa bokk ci almutribun yi nga xam ne dañoo soobu waaye itam di bindkat di taalifkat ci fànn yu bare bare nag maanaam ay ay tawaalifam nekkul muxtasara nit koo xam ne ñaar ci fiqh lay bind déedéet waaye ci majaal shatta ay domaine wuute daal boo xoolee ay téeram da nga ca fekk mu di ca mu di ca wax loolu itam nag njariñ la ñeel ummatul islam ba ci kurut ak jullit sax bari ba ca xam ne mën na saa jariñu ndax li nga xam ne moom lay ab liggéeyam li nga xam ne mooy ab liggéeyam dafay dugg rek éducation ak enseignement te ku ne xam na ne loolu ci la xeet yi ku ne xam na ne loolu ci la moom yi di rawantee euh, ba Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bokk na ci ay junjëm mooy wax ne ngeen xam ne ci xam-xam ci la nit ñi di rawante na ngeen xam ne ci xam-xam ci la ni ñi xam ak diine ci la di rawante euh, loolu itam nag mooy li nga xam ne moom moom lay dundal ci loolu itam na nekk bu dee ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu nasaraan wala bokk ci njàngum jamono modernisation am na ku ñuy wax Nelson Mandela def naa siiw na lool dafay wax ne l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde loolu itam ay mbindam dañ ci fekk loo xam ne ci wàllu euh, société mu ci wax loo xam ne bu fekkoon dañ ko ay programme yoo xam ne bu ci nit ñi jaaroon da nga changement bu gaaw a gaaw ci dundu nit ñi ci anam bu nekk na loolu lépp moom bokk na ci ay maktubaat yi nga xam ne fii bind lii nag euh, da koy def at mu jot daanaka ci ndindi di ca dajale ay borom xam-xam ñuy jël ci téere yooyu di ci def ay waxtaan ngir nit li di ci gën a mën a jariñoo ndax loolu mooy génne njariñ nekk ci biir téere yi ngir nit ñi mën ko jariñoo mu xam ne fii moom mooy barabam wala boog Euh, li olof doon bay sa yow tànk mu ne nag dafa bëgg a boole itam euh, barab bii mu joor ci euh, njëriñ loolu léegi nag yàlla dogal na am na téere boo xam ne daf ko bindoon boo xam ne am na lu am solo ci nekk loo xam ne da koy wax lu ci dëkk mu ne ko am nañ tàmbalee boobu bu beneen yoonee incha allah rabbi ci événement yi nga xam dafay xew ba mel ni màggalu boog yu demee noonu bu jub see wala ci àggee bu ñu wax ko mayee ñu amaat yeneen jotaay yoo xam ne dana mel ni ci yeneen téere loolu kon moo wundu ndajem tey bi kon téere bi nag bala ci jox si Moodu moom mu def kàddu yi yi nga xam ne moom la yëkkati incha allah bu paree ñu dugg ci téere bi téere bi nag daf ko tuddee ñaamun mudaqaratun fi qaryatin fi qaryatin fadila mu ne ay xéewal a yoo xam ne dañ koo denc wala yu nëb wala yu lëm ci dëkk bii nga xam ne dëkk bu làmboo ay ngëneel la wala ko bu fekkee loolu dañ ko sifa bu fekkee dañ ko def jinaasa itam ci borom dëkk mu Cheikh Abdou mu ne ay xéewal a daal yu bari yu ñu làmb yu nëbbu ci dëkk bi dëkku Cheikhul Fadal wala dëkk bu làmb ay gënee kon incha allah rabbi bu ñu tàmbalee benn xuus nag jëm ci loolu ak tafaasi yi nga dañuy jox si Modou moom mi nga xam ne mooy chef de village bi bu ko defee mu yëkkati kàddu yi nga xam ne moom la bëgg a yëkkati. bu fekkente ne ñëpp mel nañ ni man de moom kàddu yi dama koy gàttal ndax ni xamul mu daxiru moom yàkkamti na maa xam loolu lan la yàkkamti na maa xam loolu lu mu doon yàkkamti naa waxtaan wi kon kàddu yi du gudd kàdd yi nuyoo la rek dañ koy tënk ci ñaari baat muy nuyoo ak sant nuyoo bi sëriñ bi waa dëkk baa ngi nii kenn ku ne am na pas-pasub ñëw fekk la foofu nga toog jox la loxo waaye jataay bi laaju ko kon ñu boole ko ci sama kàddu teg ko ci sa loxo di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu góor jigéen mag ndaw ñëpp ñu ngi lay nuyu di la siyaare di sant bu baax a baax a baax nag ci lii nga def fii tey ci dëkk bi di ñaan nuyoo boobu nga jottulil ñu ko kilifa dëkk bi ki nga xam ne moom la sëñ bi denk dëkk bi muy sëriñ Ibrahima Khalil Mbacke mu jottulil ñu ko sëriñ Abo mi nga xam ne mooy kilifa kër sëñ Fallou mu jottali na ko sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa général des mourides yàlla na suñ borom yàggal ko fi te kàttanal ko ba li nga xam ne sumb na ko ci liggéeyu sëriñ bi yëpp mu àggale ko tañ fekk ko te ànd kook moom kon nuyoo moom sëñ Tuubaa dafa wax na ñaari baat la asalaamaaleykum waaleykum salaam nee na asalaamaaleykum ñaari jullit buñ tasee wax ko mbaa jàmm nga jàmm rek nee na bu loolu rek mooy nuyoo la ca des kenn ku nekk gën a xam moroom borom ba na ca daal di dem ak moom kon sëñ bi loolu ñu ngi koy teg ci sa loxo di ñaan nga jottalil ñu ko bu loolu jàllee sant gi ñu ngi koy jëmale jëmale ci waa dëkk bi ndax ku ne xam ne jataay bii de nii mu nii mu demee nii pas-pas moo ko lal ak pastéef ndax bi nga ñu woowee bis ni tey sàkku lii ci ñun sàkku ko sàkku ndaje bi tey ci bis bii nga waxoon ne damaa bëgg mu nekk balaa taw ñu ne ah ginnaaw tudd nga ci loolu de kon nu mu gën a gaaw gënal ñu am nañ ci dalu xel nag ndax xéewal wàcc na bis ni tey bis bi nga ko jàpp nii ci la xéewal wàcc kon am nañ ci dalu xel bu baax a baax ñu jàppoon bis ni tey nii ba ma ci jógee woo waa dëkk bi sama kër réunion jottali leen ndigal ñi góor jigéen ak mag ndaw ñoom ñëpp ñu ànd ci ak pas-pas am ci kontaante bu baax a baax ànd ci ak pasteef ndax lii ndaje mu mel nii ak lii lii fi gone yi def ci loo xam ne ni matu ayib bis matut matut ayib bis ndax tam am nañ ci ay ñaari fan soog soog cee jublu lépp sottee nii kon am nañ ca dalu xel bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax ci seen pas-pas boobu ak seen àndandoo googu ak Pastef bi ngeen ci jafe waaw ni ma ko waxee woon rek daal wax ji daal nuyoo la rek ak sant sant gi ñu ngi koy jubale ci waa dëkk bi yépp gis nañ seen taxawaay ak seen yitte ba ci xale yi jigéen ñi ñëpp jàpp nañ ci moo tax muy man a sottee nii ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yi jotal na lool kon ngir njëkkante ak waxtu wi rek ndax dañoon ragal ak guddal dañuy daal di nag dugg ci téere bi waaye téere bi itam nag ba luñ ciy dugg incha allah dañ ci def moom itam présentation ci gàttal rek li nga xam ne moom la ëmb boo ko defee nag mbokk yi dog ko toj comme noonu ñu ko waxee woon rek mu niamun mudaqaratun fi qariyatin fadila ay xéewal daal ngi nii yoo xam ne dëkk bi làmboo na ko xéewal yooyu nag yàlla na suñu borom def ñun ñépp ñu man cee jariñ bi nga xamee ne nag tàmbali na téer bi itam mu tàmbalee ko ci ndigal noonu nga xam ne noonu la yoon wi baaxoo ci jamonoy Cheikh Saliou Mbacké bi mu fi nekkee ba tey mboolem ay téeram boo koy liir dangay gis ne xalifa bu fi nekkal Cheikhul Khadim rek dana ja diisoo ak moom ba mu jox ko ndigal ci liggéey boobu ndax loolu mooy baax yoon wi mooy baaxu lislaam itam moo tax sëriñ bi ne laa tafaalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabuli shay'ini bi mu génnee ci loolu itam nag def na tamhiid maanaam laytaayal téere bi laytaay laytaay laytaay yooyu itam maa nga cay junj ah, nit farlu ak yitti yittiwoo goo xam ne war na koo yittiwoo di yokk ay gëstoom ci xam-xam ak farloom loolu mooy sàmm teraanga ji nga xam ne lu ko yàlla defal kooku dañuy bàññi bàyyi gaa ñi toj ko incha allah rabbi muqaddima bi bi tam ma ngi cay wax nit ki itam naka la wala farloo ci ba xam-xamam di dolliku ci waxtu wu nekk waxtu wu nekk itam muy am ay iktishafaat jadida di xam yeneen xam-xam yu yees ba muy àgg ca dayoo wa nga xam ne suñ borom dayta na nit mu yam mu yam foofa ci xam-xam bu ko defee itam danañ bàyyi gaa yi xuus ci loolu ak jubluwaayam ci téere bi itam muy xast bi dinañ ci ñëw incha allah rabbi danañ ko danañ ko danañ ko leeral ak li nga xam ne moo ko fi taxaw na sanc buñ ci jógee am na tomb bu ñuy wax xariyatum fi euh, xariyatu Tuuba boo ko incha allah rabbi itam danañ ci taxaw mbokk yi def ci ay leeral asalaamatu wal aafiya jàmm ji ak euh, mucc gi nga xam ne itam dëkk bi làmboo na ko gaañ yi danañ ko leeral incha allah rabbi li jëm ci wàllu tërbiya tudd na ko itam gi nga xam ne nit ki boo boo xamee ne ma ngi jëfandikoo ndigal yi di bàyyi tere yi nekk fi ci nekkin gam fa war a nekke loola lam ko mën a e, bijjal ci ay njariñ loola yitam dama koy tënk bu ko defee gars yi dinañ ko toj allah rab rabbi bu ko defee baadu istishhaadaat cheikh Mahamadul Fadil min masaaya Tuuba bu ko itam danañ ci dugg yenn seede yi nga xam ne cheikh Mahamadul Fadil def na ko mu jëmoon ci dëkk bi itam incha allah rab rabbi danañ ci dugg ci biir itam am na xasida gum def ci biir goo xam ne dana dikk ci yenn yi nga xam ne tudd na ko ci biir mu def ko aw way ak yenn yi nga xam ne am na fii ci dëkk bi ci wàllu économique li nga xam ne moo ko doxal yooyu itam indi na ci tudd na ci te yooyu dafa am solo tudd na ko bu ko defee itam ñu ñëw ci xaatima bi muy mujjug téere bi incha allah rabbi kon dañuy tàmbaliwaat nag ci euh, tamhid ji boo ko defee tamhid ji itam kii tàmbali mën na cee boole itam ni'amun mudaqaratun fii xari tuwa boo ko defe naa sëñ Oustaz Diop lii nga tamhid ji léegi dañ lay jox boo ko defee nga wax ñu njariñ ji nga xam ne tamhid ji muy laytaayul téere bi làmboo na ko ak yi sëriñ bi jundu ci ay leeral yoo xam ne mbokk yi dañ ci mën a jëriñoo bismillah auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi taslima assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital si nuyoo bi sëriñ bi muy aj Cheikh Mouhamad Diop Mbacke Euh, di ko sant tamit si initiative bi mu jël muy lu am solo loo xamante ne jàpp naa ne ab junj la bu mu def waa dëkk bi si ñu gën a yittewoo xam-xam ndax su fekkente ne dafa taalif ab téere ñëw bëgguñu ñu euh, partager ko bokk ko nit ñi firi ko loolu kon jàpp naa ne mi ngi soññ dafa soññowaale si si gën a fonk xam-xam gën a jàng te parcours bi nga fi def tamit euh, bi nga wax ci moom si mu jaar tamit fi mu jaar ak université yeeg yooyu yëpp tamit war nañu nekkoon ku fonk xam-xam la kon euh, ñu ngi koy gërëm si loolu di nuyu tamit kilifa yi ñu toogal yëpp ak ñuy teewee jataay bi yëpp di ñaan yàlla tamit euh, liñ fi wax yàlla defal ñu si dégg ak topp xam naa sax ñun moom dañoo sañ ta bañ rek waaye suñu xam-xam bariwut tayit wax ji moom mënewuñ ko waaye kon ñu jéem rek comme téere bi comme ni nga ko waxee euh, niamu daxara fi xaritin faadila comme ni nga ko waxee muy buñ ko doon wax ci wolof mooy ay xeewal yuñ dëxëñ si euh, dëkk bi nga xam ne dëkk bu bu am ngëneel la comme si tamhid bi laytaay bi comme ni nga ko waxee rek li mu njëkk a def mooy sàkku ndigal te ndigal loolu sax man bi may xool maa ngi doon liir yeneen téeréem waaye damay gis ne yépp loolu la si loolu la si jiital muy sàkku ndigal si sëñ ki fi nekk sëñ Touba muy sëñ Muntaxa waaye li mu wax ci biir tamit dafa am solo ndax dafa ne moom liggéeyam amaana jotam mayu ko mu muy toog di jàngale nee na loolu moo tax mu jublu si taalif ay téere yoo xamante ne si tarbiya ak taalim maanaam ci yar ak jàngale lay lay jëm euh, te loolu soo xoolee loolu daanaka mooy li li sëñ bi nekkee woon rek sëñ bi boo dafa dafa sëñ Mouhamed Lamine Diop ni mu ko nettalee si na dem ne dafa digal bépp murit bu góor ak bu jigéen mu jàng li li mu soxla ci pas-pasam ak ci fiq waaye nag mu teg si ne warlu naa sëñ bi wax ne man warlu naa sama bopp taalif ay téere yoo xamante ne lépp li ngeen soxla si seen si xam-xam muy si pas-pas muy si fiq muy si tasawuf dina ci nekk te boo xoolee loolu la def téere yim taalif yëpp muy jawharu nafis muy tasawud ak masaalik ak si wàllu naxu grammaire si wàllu fiq si wàllu tasawuf yëpp rek boo xoolee sëñ bi taalif si ay téere xam-xam kon soo xoolee euh, li sëñ bi wax foofu ne dafa euh, liggéeyam da koo bëgg a jëmale ci taalif ay téere yoo xamante ne mooy wuutu jàngale bi nga xam ne moom amaana amul jot gi mayu ko mu toog di jàngale waaye téere yooyu dana taxawee loolu te foofu tamit li ma ci kii mooy taalif téere tamit dafa gën a dafa gën a sakkan ndax xam nga téere bokkul ak bu fekkente ne misaal bi may jox rek mooy man tey téere euh, fii am naa fi maa ngi fi am ñetti at waaye li ma ci xam daanaka ko su ma liiru woon téere bi kon amaana dinaa fi nekk ba jógee fi te duma fi duma ko xam kon loolu li muy wane mooy taalif téere bokkul ak nettali ndax nettali moom ah, xëy na si ay nit ñu li mu rek lay yem te nettali it kiy nettali mën naa xër lool ba yokk si wala mu wàññi si wala mu fàtte mais boo taalifee moom moom téere bi fi mu ne nii fii ba téeméeri at moom nii mu mel rek lay mel moo tax taalif téere moom dafa gën Euh, dafa nekk loo xam ne nag xëy na suñu kii nekk fonkuñ ko bu baax waaye euh, dafa am solo torop kon ginnaaw loolu bim bim bim euh, sàkkoo ndigal ba pare li mu wax mooy waaw mooy li ma wax mooy sàkku taalif ay téere yoo xam ne day jàngale day jàngale xam-xam bim si waaw bim si noppee mooy li nga wax mu mu wane ne tamit jàng. bis bu ne nit war naa góor góorgóorlu ba mu xam lu bees maanaam xam-xam moom amul fu muy yem te loolu boo xool yonent bi sallallahu alayhi am na xadis bu ñuy wax sax ne bis bu ma naree toog boo xam ne yokkuwuma ci xam-xam nee na bis boobu yàlla bu ko yàlla barkeel foofu li mu fa bëgg a wax rek mooy kon ginnaaw moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom dañ koy wax yu li muy xam yàlla koy xamal moom nee na bis bu ne faaw dana si yokk dana ci xam loo xam ne lu bees la maanaam loo xam ne xamu ko woon démb foofu it am na benn bayit bu ci sëñ bi wax buy wane ne xam-xam amul fu mu yem mu ne talaazamu taalima wa taaluma falam yazalal jinaani sullama mu ne wala takun fi kulli yawmin taarika taalluman summa biamal naasika mu ne bul bàyyi benn bis di di jàng euh, ndax xam-xam moom amul fu mu yem comme li ma wax sànq nag ne boo xoolee sëñ bi liggéeyam bi li ci ëpp solo wala boog pàcc bu am solo bind ci bind si taalif la nekk boo xoolee bind na ne ci bind sëñ bi nee na taalif la la doon jihaati ak noonam yi loolu la wax naan bil xatt jahatu adu wallahi achata awaamin ne ci bind ci taalif laa doon ak noon yi diirub fukki at muy fukki at juróom-ñaar at yu mu def si géej gi ak ñetti at yu mu def Mauritanie muy fukki at yooyu yëpp nee na si bind muy si xasida yu mu doon def la doon jeexateeg noonu yi mu waxaat ne it si bind it la notee la gañee tubaab bi nga xamante ne ay noonam lañu woon moom la wax naan hadamtu bil xat bina aman zalam wallahu min yataqabbal balal qalam ne si bind laa màbbee lépp loo xamante ne ki ma doon tooñ tabax na ko maanaam mooy pexe pexe noonu dem na sax ba ne su ma bàyyil woon bind yi ma doon bind nee na kon bépp yéefar bu nekk ci suuf walla bépp tubaab bu nekk ci suuf dana faatu nee na nag waaye dama jéggale bàyyi loolu moom lay wax naan law annani lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil itaaba lamaata bil wabai kullu kaafiri in lam yatuubu lil ilaahi alxaafiri lakin afawtu ne si si la murit bi di àggee si yàlla loolu bëri na xasit euh, kii yum ko wax tuwassilu aqlaam ilallaahi abidan yaquudu xattiyal murit ak yeneen ak yeneen kon ci gàttal euh, xam naa si njëlbeen gi moom ñaari point yooyu laa fa gën a noté muy si sàkku ndigal gi te foofu it li ma si seetlu mooy ku ne xam na ne moom taalif téere si xam-xam moom lu baax la même bu la si kenn jox la woon ndigal it lu baax la waaye comme ni nga ko waxee ab ab aada la Euh, ab lu ñu xam daal si yoon murid la yoo xamante ne euh, day wane ak ak kilifteef nangu kilifteef léegi ndax lu baax moom euh, taalif téere moom bu xam bu xam ne si xam-xam la jëm ku ne xam ne moom doo dem si mukk si sëriñ bi mu la koy tere waaye kon bu fa sàkkoo ndigal rek jàpp naa ne dafa am lu mu fa bëgg lu fa bëgg jàngale kon si njëlbeen gi daal xam naa mën naa yem foofu ba kàddu gi ñëwaat incha allah. mel na ni dugg nga ci tabiig ji indi nga ci lu bari itam comme ni nga ko waxee rek ngir bañ a guddal ngir njëkkante ko waxtu yi loolu mooy li nga xam ne borom xam yi waxoon nañ bu yàgg am na shaa'ir wax ne wal xattu tabxaa samaanan baada saaxibihi wa saaxibul xatti taxta al ardi madfuunu mu ne day mbind day mën naa des diiru jamono ku dikk jariñu ci te fekk ka bindoon bind ma dem na ba ñu denc ko suuf lu yàgg yàgg kon loolu dafay wane itam solo yi bind kon ba tey ñëw ci tamhiid ji te tamhiid ji li nga xam ne moo ko lar rek muy tedd nga ji suñu boroom jox doomu aadama nan la ko war a sàmmee ba muy yokk ak a dolli te loolu day gis borom subhaanahu wa di wax ne wa laqad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdiila ñun yàlla day ñoo jox doomu aadama teraanga waaye itam bi ñu ko joxee teraanga ba pare itam dañ ko yenn responsabilité ngir mu war a sàmm teraanga jooju te responsabilité boobu itam weesu li nekk ci géej gi ak li nekk ci jéer yi li nekk ci géej gi ak li nekk ci jéer yi ndax loolu ci la doomu aadama gën am accès loolu itam ay ja nga xam ne moo e, am na ay yoo xam ne moo koy leeral bu ñu demoon ci tafsir Quran bu Quran waaye comme que loolu yëkkati wuñu dañ ci bañ a guddal ngir jox gaa yi ñu leeral ñu e, faqra bi nga xam ne suñ wax na ko te muy mooy wallahu jaala al insana min akrami xalaa'iqihi al bashariya wa dalika al karam yasdaadu wa yanmu yawman ba'da yawmin min wilaadatihi ila yawmi wafaatihi xasba ijtihaadihi fi baxsihi muwaafiqan bi qadri bi qadri llaahi xasba nasibihi wa xafdihi min dalika takrim min anniam kon ci Cheikh Mbacke ñoo ngi lay jox nga defal ñu ay jàng ci tamhid ji ak faqra boobu nga xam ne sëñ bi wax na ko ci téere bi jublu bu tedd boobu di jiital ci bi sëñ bi sëñ Mouhamed Diop Massamba di ko siyaare bu baax euh, di ko jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi di nuyu mbooleem ji euh, teew ñëpp ñu siyaare bu baax ñoom ñëpp rek waaw di am mbégte bu baax itam ci fekkee jataay bu mel nii di jataayu xam-xam jataayu jariñu waaw euh, comme ni ko euh, kilifa yi fi jiitu waxe woon rek euh, ginnaaw bi nuyoo ak siyaare ñëpp rek ak suñ Modou Ndiaye ak kilifa yëpp rek waaye ñun ñu ak siyaare ñëpp xam-xam ak ak jëfe mooy yi nga xam ne ñoo war a wommat jaam bi ba am li mu bëgg ci àddina ak ci àllaaxira Euh, loolu nag euh, lii day dugg ci biiram ndax euh, sëñ bi yaakaar naa téere bi mu taalif li ko tax a jóg rek mooy xamle ak leeral xam le ak leeral nag bu amee ba nopp lañ ca war a ëpp solo ci lañ ca war a jële mooy jëfe ndax sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu daa waxoon ne xam-xam ak jëfe ñaari wurus lañ yoo xam ne mbooleem lu ñuy bëgg ci aw yiw àddina ak àllaaxira ci la ne waaye bu mu waxee loolu ba noppi da caa tegoon daal di te wurus ñaari wurus yooyu wurus wi ci war a gën a jiitu mooy euh, xam-xam buñ jiital xam-xam boo jiital ba noppi ba noppi nag la nga xam noonu nga jëfe ko kon jataay bi ndekam xam ak leeral moo tax sëñ bi woote ko ñun ñëpp nañ gën a yeesalaat bu baax waaj xam ne am na lu ñuy bëgg a xamal loo xam ne niñ ko daal di commencé jëfee ci jataay bi mu doon lu ñuy jariñ ci suñu dund nga xam ne daal buñ jógee danañ mën a waat ci ne jataay bii ba mu amagut ak ginnaaw bi mu amee bokkut ci ñun bokkut yama yemut ndax am na ak soppeeku bu am ci suñu dund loolu rek la war a mën a jariñ ndax diggante bi ñu toog fii waxtu yi dem heure dem euh, daa war doon lu am njariñ njariñ nag mooy loolu mooy lu ñu fi jëlee ñu xool ñu ci mën a jëfee lum néew néew tamit yàlla xeebut daal ndax boo jëfee li nga man lum néew néew la ca des lu mu bari bëri da euh, lu néew li da koy yóbbaale yàlla noonu la ak yaatu mbati loolu sax day dugg ci li sëñ bi di wax sànq di ko laaj ci lan mooy ndax daa mel ne lim lim jàng nii ma dégg ko ci arab day wax ne yàlla te sëñ sëñ bi di wax ko ci téere bi day wax ne yàlla doomu aadama daa bokk ci li nga xam ne yàlla da def ko muy li gën ci ay mbindeefam waaw loolu day dugg ci li ma doon leeral sànq ndax yàlla bi mu bindee doomu aadama ba nopp moo ko moom waaye defal na ko heure yi comme bis bi mën nañoo xam ne 24 heures la waaye 24 heures yooyu yàlla daf koo bàyyeewaat mu waaye ñun ñii ku ci ne ci ñun wala euh, ñi ci ëpp ci ñun mën na yor na ak jur ci këram waaye jur googu yàlla leen bind comme ni ñu binde waaye yàlla dañoo may ñu leen di jëfandikoo yii ñu leen di war yii ñu leen di jëfandikoo ci xéewlu yii ñu leen jëfandikoo ci yeneen ci mbay ak ak ci yitte ju ñu am te ay mbindeef lañ ci ñun ne ñun loolu nag loolu jàlle ñun ñoo leen di jël di jëfandikoo seen aar yi yëpp ñu am waaye ñoom suñu aar yi ñu am muy 24 heures yàlla dañu koo may ba noppi boole ci nañu bu ngeen ko eh, eh, defee nii ak nee ëllëg damay wëlbati ko fayaat leen ci mooy may leen ci àjjana defal leen ci eh, xéewal yu yàgg sax fii ci àddina ndax ku sax ci ndigali yàlla yi ci àddina mbooleem lu mu bëgg rek yàlla da koy defal li mu wax nii maanaam ab aaya alquran karim na boo xam ne yàlla ko wax garanti ko mooy ku ne ci li ma bëgg maa lay taxawul maa lay taxawul sama bopp moom waroo am lenn looy tiit waroo am lenn looy looy ragal waaw wax dana dalika yàlla moo féete woo gëm yàlla moo tax loolu moo feddaliwaat la mu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun mooy ñi ma féete woo ñi nga xam yàllaa leen féete woo am lu ñu ragal lu ñu am lu ñu tiit loolu day gën a firndeel tam loolu sëñ bi wax ne doomu aadama mooy li yàlla gën a teral waaye mu wax ci tam ne ginnaaw bi mu doonee li yàlla bokk na ci li yàlla gën a teral ci bindeefa bi mu wax ne doomu aadama boobu nga xam ne moom la bokk na ci yàlla teral ci bindeefa bi te loolu di maanaam li mu wax ne wala xat karram naa bani aadama daa cee teg moom sëñ bi daal ne loolu nag mu ngi aju ci farlu doomu aadama ak ay pexeem yu muy def ba tedd nga googee yàlla nga xam ne yàllaa ko ko jox nu mu koy gën a euh, nu mu koy gën a joxe euh, gëdd nu mu koy gën a mën a jariñoo loolu mi ngi aju ci farlu doomu aadama ak ci pas-pasam ak ak ak ci ak yitteem loolu rek suñu euh, yaakaar àddina ak àllaaxira suñu Tuubaa radiyallaahu taala am doy na ci ci misaal ndax li am lépp fit wu rëy ak pas-pas ak yéene ak nangoo sonn ak nangoo jëf rek euh, moo ko jox suñu fàllu bi sanc fii tamit noonu ndax man nañoo bi muy sanc fii su doon bëgg-bëgg wala doyloo lim jot am rek dana toog Touba doyloo lam jot a fastel ndax li mu bëggoon lépp ci àddina mën naa am lu ko doy sëkk waaye yaatal ak comme ni ko sëñ bi waxee say yéene ak say bëgg-bëgg lu mu gën a yaatu rek yàlla gën laa war tedd nga am loolu moo waral ba Sëñ Fallou bi mu ko sosee li fi am am ba ni mu fi jógee yëf di di wéy di continuer njabootam gi ña fi ginnaawam ba mu mii mu bokk ci ñi koy dundalaat loolu loolu lay wanewaat ba tey mooy doomu aadama moo war a gën a xam gëddaam gën a xam ko yàlla jox mu dox jëm ca dox jëm ca nag ñaari eh, keno yi rek lay àndal ñaari laaf yi la war a àndal man dox ja muy eh, xam-xam bu wér ak jëfe waaw jëfe gi nag mooy jëfe ndigali yàlla yi jëfe jëfe jëfe ndigali yàlla yi loolu liggéey ci la bokk muy di sàkku lu lew loo xam ne ci ngay mën a sàmme sa ngor sàmm sa njaboot ci lépp lu leen di gàllankoor waaye itam ci topp ak jëfe ndigali yàlla yi ci jaamu yàlla eh, ak ci wattaniko lum la tere waaye itam ci jariñ mboolem koo xam ne gis nga ne soxla na wala mu yittewu ko ko jariñ waaw mën a yaatal sa gis-gis ak sa euh, euh, gisin ci àddina loolu mooy gën a yëkkati valeur doomu aadama mu xam ne rek doomu aadama euh, wu li ko wutale geneen bindeef fii mooy loolu mooy xel mi ko yàlla jox ak ak ak ak ak ak ak ak mën a am bëgg-bëgg ci dara ak mën a dox jëm ca bu ko defee nag yàlla daat koy jàpp ndalal sabab yi nga xam ne mooy tax mu mën a am àgg jot ca la muy wër ak la bëgg loolu bu àndee mooy gën a mën a jox doomu aadama valeur am moo tax mu gën a xam mooy kan moo tax itam mu gën a xam li ko tax a jóg yàlla nag subhaanahu wa bi mu jumbindee ba noppi da cee boole wan ñu yoon ngir bëgg ñu wan yoon woowu nag moo waral mu bindoon doomu mu yónni ci ñun sayyidina Aadama alayhi salaam mu tàmbalee ci ñoom ba ci yónnente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñëpp seen dund gépp ñu ngi ko jeexaloon ci bu ngeen jaaree ci yoon wii dangeen am li ngeen bëgg da ngeen am alal ju lew yoo xam ne da ngeen ci mën a dund ci àddina waaye itam da ngeen am tuyaaba ju yaatu ju bëri joo xam ne ëllëg bu ngeen tëddee seen bàmmeel da ngeen ci mën a xéewlu bu baax ci gàttal daal euh, doomu aadama euh, mooy tënk boppam waaye yàlla ubbil na ko ay gox ak i ligne yu yaat loolu nag sëñ bi day mel ne loolu da koy dundal ndax euh, xëy na ci kanam mën naa am ñu ñëw ci waaye mi ngi koy wax ci biir téere bi euh, comme li ngay wax naan doo euh, yamukaayu doo ah, doomu aadama mi ngi aju ci moom bëgg-bëggam ak pas-pasam ak pëstéefam loolu dana feeñ ci biir téere bi ni mu koy waxee ne li tax muy sanca ak li tax muy taalif ak li tax muy muy farlu waaw yooyu yëpp ngir li alquran wax ne inna ardi waasi'a fa iyaaya fa'budun waaw mooy sama si suñ borom dafa ne sama suuf si yaatu na kon nag jaamu leen la moo tax sax xëy na sallallahu alayhi wa sallam ne dañoo def euh, mbooleem pàkki suuf yi na ci àddina yëpp muy pàkk yu laab ci sama xeet nga xam ne fu la julli fekk rek mën nga faa daal di julli waaw loolu ci yaatal googu ci la ci la ci ci ci lay dugg waaw kon moo tax doomu aadama ko muy tënk boppam ci yu bëri lu dul rek yi ko yàlla tere te sooy xeet sax yi ko yàlla tere yu yu limu la tënku la ndax dañuy wax ne borom xam-xam yi dañuy wax de tere yi yàlla tere dañ koy limité wax ko mu leer ne lii yàlla da koo tere ndax luñ xam la amaa yim terewul moom xamaluñ ko duñ ko xamuñ ko duñ ko boyal dañ ne yu yu bokkut ak yi ñu lim ne dañ koo tere rek lu dagan la nga xam ne kon ci ak yi ñuy may doomu aadama ngir mu mën koo def ngir ba mën a euh, jagal àddina gi nga xam ne yàlla bi mu ci wàccee dañoo digal ne wasaamarakum fiiha euh, jox nañu jumtukaay yëpp li ci des rek ci ñun la Serigne Cheikh Mbacke kon leeral yi mu indi am na solo lool kon dañuy continuer rek jox kàddu gi al oustaz njaay boo ko defee ngir ñuy njëkkante waxtu wi rek bu ñu mën a def xaar jël ma wax ko defee bunt bu ñu dugg rek ñuy cof ca tuut rek jàll ci beneen ngir njëkkante waxtu wi ngir ñu mën a yeggale itam téere bi ci waxtu yi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi nuyu mboolem waa jataay bi comme nuyoo bi sëñ bi jotal na ko léegi ni mu kon kon xam naa dañuy sant bu baax di sof ci ñi jot a wax lañu lañu wax rek daanaka wax ji benn la sëñ bi tudd nga aaya bi nga xamee ni mooy mooy mooy nuqtatu intulaaqu sëñ bi man damay damay bëgg dugg directement ci téere bi euh, ndax loolu mooy gën a kii maanaam dama jàpp ci téere bi mooy sëñ bi ni muy taxawee mooy ndono la nga xamee moo jóge woon ca yonent ya ba léegi yonent yàlla aadama ba ci naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jóge ci ñooñu ci saxaaba yi jóge ci saxaaba yi tam taabiina yi ba ñëw ci sëriñ Touba ba ñëw ci njabootu sëriñ Touba ba ñëw ci sët yi nii maanaam loolee ci la sëñ bi nekk di jottali loolu téere bi nag ci tur bi laay tàmbalee mooy niamun mudaxara fii xariyati la téere bi nuru na lu gàtt loolu waaye munta gàtt ndax tur wi ci boppam sëñ bi da koo itlaaq ni amul mu dax xara la wax ay ay xéewal yoo xam ne kenn xamut fan la tàmbalee kenn xamut fan la yem waaye néewut fàng tamit yu yu fàng nitu ordinaire yi mën nañ koo gis waaye yéen yi yi yi ñu yi ñu ci biir nag il faut nga am noo jaarale sa bopp pour mën koo gis yoon woowu nag dafa mel ni sëñ bi moom la ñu bëgg a wan ah, nan la ci nit mën a jaare ba jariñoo ci moo tax ci tamhiid bi soo xoolee sëñ bi daa def ni nga xamee ni noonu la gaa yu baax yëpp daan tàmbalee mooy sàkku ndigal bañ jox ko ndigal ndax képp ku bëgg a mucc kat wala la ngay dox ni mu ko waxee ci bay bayit bi mooy charte bi nga xam moom la sëñ bi def ne mooy charte xubulu sha'n mooy nga am sa ndigal defe naa loolu moom la déparé ba mu ca déparé tamit dafa ñëw indi karaama bi nga xamee moom la yàlla defal doomu aadama karaama boobu nag la ca jiitu mooy yàlla mbindeefam yëpp la teral waaye teraanga ji ci ji jëm kam ca gën teral nag mooy kim jox am xel muy doomu aadama comme ni ko sëñ jili waxee léegi ci aaya ba wala xad karam naa bani aadama kon loolu teraanga jooju nag soo xoolee sëñ bi ci tamhiid bi dafa dafa junj ne teraanga jooju dafa day day day yokku di wàññeeku waaye nan lay yokkoo di wàññeeku euh, nan lay yokkoo day yokk wàññeeku sax sëñ bi tudd ko ndax moom ab defarkat la muslih la day mel ni du bëgg a tudd safaan lu baax la rek lay tudd waaw moo tax soo xoolee da day day yokku di màgg day yokku di màgg kon karaam boobu mooy xel moomu bu ko sëñ bi jëfandikoo ca la la la yonent ya tàmbalee woon mooy lan mooy cosaan cosaanu diine diine muy diine islaam ba nga xam mooy diine jëpp mooy ndey diine di diine yëpp ci lislaam la mooy jëf lu baax teg ko ci xam-xam def naa loolu moom la fi sëñ bi bàyyi mooy ndono li to nees ko mën a jottalee nag ku ku ku fi nekk di dox ci yoonu sëñ bi noonu ko mën kon sëñ bi li muy def nii moom li mu wax leeral na ko nee na léeg day toll ci ndigal la samay sàkku ndigal nit na toll foo xamee jonjonte ci ak nit ñi doo ko mën waaye danga mën a toog bind nag di ko tasaare ci loolu lañ nekk kon def naa karaama boobu karaama boobu nga xam ne mooy xel day yokku di wàññeeku hmm? waaye sëñ bi nag yokk gi ak ak màgg gi rek la wax ne moom da koy def soo xoolee waaye nag nee na yokk googu ak màgg gi mu ngi aju ci ijtihaadu nit ki maanaam nit ki ni muy ni muy farloo ni muy góorgóorloo na mu cay sonne ah, na muy sonne ci jéem a def lu baax ak jéem a jàng euh, jéem a jàng xam-xam bu lépp lu muy def mu teg ko ci xam-xam noonu la noona la mbir ma di yaatoo ak di ko màggee soo nekkee fenn di fa jaamu yàlla di dafa def ay ndigalu yàlla foofa ya mu ngay mu ngay mu ngay màgg yaa ngi màgg ci ci diine waaye nag bu foofa matee tamit da nga war a déplacer dem ci beneen place moo tax soo gisee mag ñu baax ñi kenn nekku ci woon ci benn place dañ doon déplacé wu suñ defaree fii ba mu jag ñu demaat feneen foo xamee ni xëy na am na lu lu fa lu lu ñu fa war a joyanti ñu dem joyanti ko jàll feneen kon def naa tamit bi sëñ bi man ci gàttal sëñ bi karaama boobu la bëgg a génnee waaye soo xoolee karaama bi tamit sëñ bi ni muy waxee man damaa yéem ndax léeg su waxee ba noppi dalay delloowaat ci yàlla waaye karaama boobu tamit. boo xoolee ci suuf wax na ne maanaam sa góor góorlu ak sa gëstu waaye nag da nga koy dëppaleeg ndogalul yàlla nag te ndogalul yàlla daa bokk ci yërmande yi nga xamee ni yàlla da ko wàccee ci kaw doomu aadama yi ndax soo gëmee ndogalu yàlla mooy yërmande la ci yàlla yërmande yàlla bu mu wàccee ci nit ñi la ndax su fekkee gëmoo ndogalu yàlla mën ngaa nekk ci lu baax nekk ci sa moroom mu nekk ci lu baax ah, léegi nag mën naa am bu fekkee gëmoo ndogalu yàlla delloo ko ci tawxiid mën naa am lu mu xewal diggantel mooy lu mel ni ay xeetu mbañeel wala yooyu comme ni ko siñ bi junje léeg-léeg te loolu wax dëgg yàlla sëñ bi sóoraal na ko kon daal man tamhid bi ni ma gisee ne euh, li ci sëñ bi tënk ci tënk mooy dafa ne man daal tàggoo naa jug naa te soo xoolee ci mbind sëñ bi li ma jiyee euh, maanaam bunt boo ci dugg tamit ab ab junj la ndax soo xoolee bunt bu ci nekk sëñ bi da koy jeexale ak salaas naqaat ñetti tomb la koy jiital maanaam daa da koy da koy aj day mel dafa aj wax ji kon wax ji àggut am lu des kon mooy tax ne bunt bu mu ci bu mu ci junj rek day mel loo xam ne nii xéewal la goo xam ne du jeex ak lu baax ñëpp ne lu doy lu baax du doy kon lépp lu baax la kon munta doy dañ ciy wax a wax ba ba sonn rek waaye munta doy kon sëñ bi daal yoon wi mu wi mu wi mu xàll moom tàggoo na jug na buñ demee ca xa euh, ca fële euh, ca ca ca ba ca toppaat directement ca lam jubluwaat da ko cay junjaat foofu lay dem directement kon foofu laay euh, taxawloo bu ñëwaatee ci ci kii bi maanaam nuqta bi ci topp mooy al al muqaddima danañ xoolaat fa mu junjee fa mu def fa mu daanelee ca tamhid ba rek foofu lay junjee ca lam jëm ca muqaddima ba. li nga indi baytam leer na yaatal na itam kon dañuy jox suñu Cheikh naa joxaan itam moom mu ñëw ji tom boobu. comme ni ma ko fàttale woon léegi rek comme que ñaari waxtu rek lañ bëggoon jotaay bi diire ko te xam naa téere bi itam buñ bëggee leeral lépp dana yàgg dana dana guddi te bu ko defee dañuy jima wax loo xam ne rek wala génn ci li nga xam ni ñi dañ ko mën a jëriñoo rek li ci des nag moom wàllu li liggéeykat yi la bu ko defee nuqta buñ tudd rek buñ dugg rek wala bunt buñ dugg rek ñu cof ca tuuti ci taxalix rek ku ñu nekk jël ci taxalix bu gàtt rek ngir ñu mën a àgg ci mboqoolu kita euh, kitaab ci yokku téere bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yu tedd yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamad Massamba Diop cheikh Mamadul Fadel di teg nuyoo waa dëkk bi ci loxo loxol Serigne Modou Ndiaye chef de village mu dot li ñu ko mbooleem waa dëkk bi yëpp maa ngi ziyaare mbokk yu tedd yi ma bokkal jataay bi sëñ Abdul Qadir Bousso waaye sëriñ Cheikh Mbacke oustaz Ndiaye oustaz Diop di rafetlu kàddu yi fi jaar yépp ci tënk bu gàtt rek ci fàqara boobu sëñ ji li jàng leegi te sëriñ bi ni ko ñépp xame bi mu bindee téere bi ci njëlbeen gi dañoo jàngal lu am solo loo xam ne bu ci yemoon rek day na muy doomu aadama ak teraanga ji ko suñ teral doomu aadama suñ borom dafa da ko bind ngir jaamu yàlla da ko bind lil ibada xalaqa al insana lil ibada wa xalaqa kulli shay'in li ajli da ko bind ngir jaamu yàlla bindaat lépp nag ngir doomu aadama mooy teraanga ji gën a rëy yàlla bi mu bindee doomu aadama ba noppi ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dama laa bind yow ak yi ngir ngeen jaamu ma dafa bindaat ay ashya yu bari ay mbir yu bari yoo xam ne lam ci jublu mooy doomu aadama mën nekk ci àdduna ci condition yu baax ba mën a jàmm yàlla ay bindaat ko itam lil i'mar ngir mu dundalal ko suuf si wa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha saa borom nee na yow doomu aadama dama laa bind dama laa sos ci suuf ba noppi bëgg nga dundalal ma suuf si moo tax ñaari mission yooyu mu teg doomu aadama suñ boroom dafa andi ci àdduna loo xam ne doomu aadama da koy istimaal da koy jëfandikoo ngir mën a tax taxqiq ñaari objectif yooyu ko yàlla jox moo tax sëñ bi wax ne nag doomu aadama ci boppam ci farloom ci la mën a jaare ba teraanga jooju ko suñ borom jox di yokk waaye ci yaafusam ak yàccaaralam ci la mën a yàccaarale ba teraanga jooj yi di wàññiku ci moom ku la gën a tedd gën laa baax mu ngi la gën a baaxee ci ñaar yi waalam bi na annama tafawatul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbiro sëñ bi ne nit ñi ñu ngi rawantee ci ñaar al ilmu wa diin xam-xam mooy defar xel nit boo bëggee sa xel di yokku dangay jàng jaamu yàlla mooy defar xol moo tax sëñ bi wax ne ku la gën a jàng moo la gën a baax am xel kon moo la ëpp expérience ku la dàq jaamu yàlla moo la gën a baax ab xol kon moo la gën a defar moo tax moo wax ne wa bihima yafdalu man qad fadula laa bintisaabihi li man qad yatala bi jihatil ansaabi ummin wa abi fa fihima ijtahad ma atta addubi nee na ku la raw rawewu ci ndey ak baay rawewu la ci askan rawewu ci dara ci xam-xam ak jaamu yàlla la rawe moo tax mu waxoon ne wala sturaadiya xayri ilmi wa diini sëñ bi daa waxoon ne gërëmuma lu dul xam-xam ak diine ndax ñaar yooyu ci li mën a jaare ba raw ay moroomam kon foofu lañuy gise gisee teraanga ji suñ boroom teral doomu aadama waaye ca lañuy gise ni mu ko mën a sàmmee ñépp wax nañ ko laqad xalaqna linsaana fi ahsani taqwim suñ boroom nee na maa leen bind bind bu amul moroom bind bu rafet bind bu taaru bind bu mat waaye léeg-léeg nag ngeen wàcc seen bopp ba gën a suufe luy suufe su ma radadnaahu asfala saafiliin waxaat na ko feneen ulaa'ika kal an'aami bal hum adall dama leen di bind jox leen jumtuwaay yi ngeen war a am yëpp alahumu arjulun yamsuuna biha alahumu aydin yabtisuuna biha am lahumu ayunun yubsiruuna biha am lahumu aadaanun yasmacuuna biha waaye loolu lépp nag defal naa leen ay tànk pour ngeen mën a dox defal naa leen ay loxo pour ngeen mën a jàpp defal naa leen ay gët ngir ngeen mën a xool defal naa leen ay nopp pour ngeen mën a déglu waaye loolu lépp xéewal googu yéen gisuloon ko yéen comme ay bàyyi ma dam yàgg ba ne bàyyi ma yi sax ñoo leen tane ndax bàyyi ma yi suñ boroom joxu leen xel muñ mën a jëfandikoo ngir mën a joxu leen benn mission ndax amuñ xel ñun la yàlla jox jumtuwaay yépp andi ñu ci àdduna biñ fiy ñëw mënuñ dara allahu allahu alladi xalaqakum min butuni ummahatikum la taalamuna shay'a wa jaala lakum sama wala busaara wala fidata laallakum tashkurun yàlla neen ba mu leen indi ci àdduna xamuleen leen woon dara maa leen defal ab dégg maa leen defal ab gis maa leen defal xol bu ngeen di mën a jàppe ngir lan ngir ngeen mën maa sant sant yàlla nag ashukru nag mooy jëfandikoo xéewal gi yàlla jox ci luy ci jëf ngir sante ko sa borom xaqiqatu shukri la daa man alima shuhuduna min zil jalali niama wa amalul biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yurda wa ruknan yustabaan moom la sëñ bi wax ne na sant yàlla mooy xéewal gi la yàlla jox danga koy jëf dañ koy jëf lu neex yàlla ne yàlla jëf naa lii ngir sante la ko kon ku yàlla jox teraanga muy doomu aadama li war a def mooy saa yu xëyee di def lu yokk teraanga joojee te mooy jéem a xam boo xamee mu nopp mu jëfe loolu jàpp naa ne mooy tënk bu gàtt bi nga xam ne sëñ bi tënk na ko ci tamhiidu tere bi sëñ ji aradna lamaanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa xamalaha al insaanu innahu kaana daluman jahula yàlla dafa wax ne gaaral na confiance wala kóolute doj yi ak asamaan yi ak suuf yi ñoom ñépp ñu gàntal ko diislu ko nee na doomu aadama moom ñëw yenn ko mu ne doomu aadama nag la ko tax dugg ci loolu mooy dafa di ab tooñkat dafa itam di ko réer loolu nag dayoo la waaye teewul yàlla joxoon na ko ay yoon yoo xam ne nit mën naa fexe ba du sànq ci ndimbalul yàlla muy wax day naahun naji day la koy firndeel mooy imma shakiran wa imma bu ko neexee mu jël yoonu kéefar bu ko neexee itam nag mu jël yoonu ngëm yoonu sant kon foofu la ñu tëjee ci bunt bi di ñëw ci muqaddima bi rek ak anam bu mu gën a gàtte ñu di ko fàttali rek euh, xayrul kalaami maa xalla wa dal bu ko defee waaw ba tey mën nañoo boole sax ñaari bunt yi mu muqaddima bi ak xasd bi muqaddima bi nag sëñ bi ma ngi ciy wax ginnaaw ba ñu jógee nag ci karam ji nga xam ne suñu borom defal na ko doon aadama mbar koo sàmm fexe ba mu dolli ko ba ñu jógee ci loolu nag sëñ bi dafay dugg ci muqaddima bi muy nag nit boroom xel boroom xel ndax xel dafa dafa am solo mën nga ne sax mooy nit ndax nit ki bu tàggu xelam rek daanaka mook bàyyi ma yi boobaa ñoo yem mala rek lay doon kon nit ki naka la mën a ba exploité xel moomu loolu danañ ci dugg incha allahu rabbi nan la ko war a yittewoo te alxuraan ku ne gis na ci afala tanqiluun bari na ci suñu borom danay wax ba daaneel aaye ne ndax du ngeen xeltu xeltu nag tafakkur moo ko indi loolu tam bari na ci ay alxuraan yi afala tatafakkaruun ndax du ngeen xalaat mooy du ngeen def méditation kon incha allah rabbi day joxaat rek euh, oustaz Diop mu dugal ñu ci muqaddima bi euh, ak bi ci anam bu mu gën rek. waaw jërëjëf sañ Abdul Qadir ak mbokk yi jël kàddu yëpp si taaliqaat yu am solo yi waaw comme ni nga ko waxee xam naa téere bi naam sax guddul waaye. suñ ko bëggee jàpp euh, point par point noonu xëy na mën na mën na yàgg moo tax xam naa si lu gaaw rek euh, foofu nga wax noonu muy alqasd bi sëñ bi daf si wax ne daf ne moom lii bëgg-bëggam mooy maanaam day xencu yàlla fépp fu mu ko mën a amee nee fépp foo xamante ne yaakaar na ne daal bu fa demee maanaam fu wéet la foo xamante ne fu fu ña fu nangu ñaan la suuf soo xam ne su nangu ñaan la rek dafay daal di dem boo xoolee si xasd bi euh, noonu loolu la ci wax baatu xasd boobu nag man dama koy compare ak sag dut si dundu sëñ bi ndax boo demee ci xuqal bu kaaw bi muy wax ci nitu yàlla yi si seen seeni màndarga wala seen charte daf seen boole daf ne fa maqsadun wa huwa maa yufdi ilaa safarin daf ne bokk na ci mooy maqsad maanaam mooy jubluwaay jubluwaay boobu nag moo leen ni poussé sax ñuy tukki di moo xam xam-xam la wuti moo xam ab nit yàlla lañ dégg pour seeti ko loolu bu xoolee si dund sëñ bi sax dañuy gis ne comme ni mu ñëwee irwaaw nadim ne sëñ bi ah, si marxalaam ndax xam nga sëñ bi ay ay ay ay tolluwaay la tolluwaayam bu njëkk bi nga xamante ne fa la nekkoon di seet nga xam ne jamono jooju mu ngi seet ab sëriñ fépp fu dégg daal waliyu wala fu mu dégg boroom xam-xam dafay dem loolu sax si téereem boobu naan bidaayatu suluk am na lu am na lu mu fay nettali naan fajultu bay islam falam azal munzu aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyati wa amali wa qawliya ba fi muy waxee na xattan saraftu ama aysasin ila xidmati xayril alamina zil ila foofu dafay wax ne mankat bi ma jógee dama wër ci boroom xam-xam yi ak awliya yi sama yéene ak sama wax ak sama jëf nee na loolu nag lim si jublu woon mooy am yàlla rek la si jublu woon daf ne dip bi muy xelu maanaam bi mu amee xel rek la tàmbalee wër yàlla nee na nag ba loolu mi ngi kon mi ngi si nekk fépp fu mu dégg nit yàlla ba loolu sax moo ko boole woon mu dem ba Cheikh Sidiya euh, am na sax xasida gum defoon ci moom nga xam ne da si tawassul di si ñaan ci barke Cheikh Sidiya ak njabootam yooyu si euh, bidaayatu suluk euh, loolu la si sëriñ bi da wax léegi nag bi loolu amee nag am na sox benn naar bu ko ma sañ laaj na ko kan mooy sa sëriñ sëñ bi ne ko yonente bi bi mu ne ko nag damaa gis kat yow ngay yenn saa yi ngay tudd Cheikh Sidi di ko wax sama sëriñ ak yooyu boobu la ko sëñ bi leeral ne ko boobu kat jamono jooju damaa nekkoon si jamono yu wër damaa meloon ne rek koo xam ne gisul nga xamante ne moom day làmbatu rek waaye nag ne ko léegi nag moom amul kenn koo xamante ne mat na ma sëriñ ku dul yonente bi salaa salaam loolu am na si bay dim koy wax naan ba baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul di wane ne leer na képp koo xamante ne am na xel na yonente bi mooy sama mooy sama wasila kon foofu si si gàttal li ma fi bëgg a leeral rek bëgg a comparer rek mooy sëñ bi li mu wax si ci xasd ne moom si téere bi mooy sëñ Mouhamad Diop mi si téere bi daf ne moom fépp fu mu dégg fu jàpp ne mën na fa am yàlla dafay dem boobu sax dafa leeral ne yàlla moom mi ngi fépp waaye lim jublu si fépp fu yàlla nekk lim si jublu mooy suuf soo xamante ne jàpp na ne suuf su nangu ñaan la suuf su barke la rek dafay dem loolu moom laa doon jéem a comparé ak sëñ bi di wan ne sëñ bi tamit loolu la def ndax si marxalaam bu njëkk bi bi muy wër dafa fépp fu dégg waliyu fépp fu dégg borom xam-xam da koy ziyaare noonu la def nag ba dem ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ba euh, ama aysasin muy 1300 euh, onze suma juumul boobu nag la daal di fëgg loxoom si bépp sëriñ bu mu mësoon a am jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa kon mën nañoo gàttal foofu lu cadre sëriñ ba sëriñ Basiru Jóob ak sëriñ Cheikh niñ ko waxee rek waaw comme foofu nga ma wax sax foofu laa bëgg na commencé ndax bi ma commencé ci tamit bi fu ma tëjewoon waxoon naa la sëñ bi fi muy tëjee fi muy daaneele ca buntu bee moom lay ubbee ca bunt ba ca topp ndax insaan la insaan mukarram la commencé woon euh, yàlla mi xam moo jox teraanga nit fii mu ñëw ne kookee ñu teraloon kat lii lañ ko terale mooy al insaanul aqil moom la ubbee muqaddima bi insaanu aqil boobu nag kon xel moomu maanaam waa tasawuf xel fi ko nit di jëfandikoo mooy ci xam-xam ak jëf ju baax xam-xam ak jëf ju baax ak lépp loo xameen nii day dundal suuf si nga xamee ni yàlla comme ni ko sëñ bi waxee ci aaya bi yàlla dañoo sant ñuy dundal suuf si hmm? ci bépp anam nag kon xam-xam xel moomu moo ñuy dimbale boo istimaarul ard boobu ñu mën koo taxqiq ñu mën koo def jëmmal ko ba mu ba taxaw kon suñ xoolee foofu da gis sëñ bi la ma waxoon ca mag ña rek ma ñëwaat damay comparer kon loolu xam-xam ak jëf ju baax defe naa mooy mabda bi nga xamee moom lañ fondation sun euh, yoonu murid yi mooy mooy to mooy al islaamul xaalis mooy lislaam ju set wicc mooy al muridiya mooy tariqatu murida al murid sadiq def naa moo mooy al muslimul xaalis rek mooy koo xamee jullit boo xam ne day sellal ma noonu laa ko jàppe te kon jëf ju baax ak teg ko ci xam-xam loolu rek moo ko mën a def loolu nag tërbiye bi nga xam ne si bi nga xam ne mën sax dina ñëw ci kanam sëñ bi lim lim yaree ay mag ñi ak taalibe yi def naa moom la sëñ bi bëgg a wone fii mooy lan mooy fexe ba nit ki fu mënti jublu tamit ab yëngatoom akuk dalam mooy jëf-jëf ju baax teg ko ci xam-xam mooy al ilm wala amal comme ni ko sëñ bi santaane te ilm wala amal boobu boo ko boolee mooy mooy sun sun slogan bi nga xam ne moom la mouridisme di di di di bàkkoo muy xidma to al ilm wal amal boo ko boolee maanaam synthèse bi mooy doon alxidma mooy lépp looy sa yëngutoo ak sa toogaay ak looy def looy xalaat sax jaamu yàlla lay mujj doon daf naa man loolu laa jàpp moom la mooy xidma lépp looy yëngutu nit ki bu àggee tolluwaay boobu mooy kon lépp loo xam ne bu fekkee looy fàggu ci àdduna la fàgguwoo ko ngir jëmmi àdduna waaye danga koy fàggu ngir am loo xamante nii ci àdduna da nga ci mën a terloo suturlawoo jaamu ci yàlla ah, def ci lu baax te def naa euh, man xidma gi ñuy woote woo ci yoonu murit noonu noonu mooy mooy mooy mooy li nga xamee ni noonu la ko sëñ bi jàngalee mooy lépp looy def rek sa yëngutoo ak say ba ci say nelaw sax mën naa doon jaamu yàlla waaw kon def naa foofu foofu la sëñ bi jëm si yoon ci insaanu aqil kon ku am xel xelu dëgg dëgg dëgg mooy da ngay fexe sa dund gii nga fexe ba tegu ci lépp looy def nga teg ko ci xam-xam hmm? ak liggéey li muy liggéey jaamu yàlla bi na tegu ci xam-xam liggéey bi tamit boo ko jàngee pare nga teg ko ci ja euh, ci ci xam-xam ak ragalu yàlla ragal yàlla la yàlla sant nga def ko def naa kon su boobaa liggéey boo mën def doy tudd xidma te xidma mooy lépp loo ciy def mooy tuyaaba nga ci am lépp sa say yëngutoog say toog lépp jaamu yàlla lay doon kon def naa foofu daal jàpp naa ne sëñ bi ba mu jógee ca tamhid ba ne waaj tàggu naa waaj naa maa ngi jëm fii laa jëm hmm? waaye nag ñuy ñambaas ca lam mujj mooy mooy xas ba ñu ne kon lu ma ci jublu mooy jëmm yàlla képp képp la ci jublu hm? kon loolu wax ja de daal di frenklaayu foofa te loolu nag fa mu ko yaakaaree hm? bokk na ci dëkk bii dëkk bii ñu nekk muy euh, xariyar Touba Bogo bi nga xam ne Serigne Fall moo ko sanc hm? loolu moom sëñ bi leeral na ko si am na loo xam ne bu ñëwee ba ci kanam ci buntu yee dana ci gën a feeñaat kon naa taxawlu foofu ba ñu egsi foofa incha allah. mel na ne moom itam indi na ci ay leeral yu bari yoo xam ne xëy na mbokk yi danañ ci gën a jëriñoo euh, gën a euh, jëriñoowaat bu ko defee dañuy jox si Cheikhouna Joxaane itam mu dikk ba tey ci mu xaddima bi ak xasd bi. jërëjëf mbokk yi fi jaar yëpp ci romb gu am solo gi day mel ni ci bunt bi suñ bi dañuy xamal li suñ borom di xaar ci nit ki ginnaaw bi mu ko defee xel ba noppi li muy xaar ci moom. xel ab jumtuwaay la bu yàlla defal doomu aadama mu doon xel mu mat sëkk moo xam ne ciy ràññale diggante lu baax ak bu safaan xel moomu nag doomu aadama ci farloom ci la xel mi di yokkoo mu tudd ci ñaari baat al ilm al mooy xam ak xàmmee nit ki lu muy gën a yokk xam-xam xelam di gën a di gën a yaatu am na ko tudd bayit yi léegi bi sëñ bi di wax ne walam azal munsu aqaltu taaliba maxrifatun billahi jalla taiba fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyati wa amali wa qawliya da caa tegoon kay laa yudia umuri ataaba li xusni zannin qaada li ixtisaaba ne bi may wër boroom xam-xam yeeg wàllu yu yeeg gaa yu baax yi dama bañoon sama dund sànq ngir rafet njort gu ma rafet njort gi suñ borom sëñ bi boo jëwee ci xasd bi loolu ngay yëg ci moom ni maamam defoon nga xam ne bi mu jógee daa daa di tàmbali wër gaa yu baax yi fu mu dégg ñu ne ko baax a nga fa doonte barab ba la fay fekk sax mu dem ziyaare mooy li mu wax ne suñ borom lay wër fu ma xam ne suñ borom ma nga fa ma dem fa ab ishaara la ab junj bu wér ci ne ndekk dëkk bii di Touba Bogo daa bokk ci dëkk yi suñ borom nekk nga xam ne kuy sàkku leerug yàlla di sàkku ijaaba muy nangu ñaan man nga fay dikk muy Touba Bogo nee na moo tax nag loolu moo ma ci ma toxal samay jéego ba agsi ci dëkk bi nga xam ne sama wajur moo ko sancoon waaye ñëwuma fi nag ngir lim doon sama dëkk booy jur dama fee ñëw ngir lim bokk ci pàkk yàlla yi inna ardi waasi'atun fa iyyaaya fa'budun am na ko wax léegi am na woykat boo xam ne wa fil ardi man an lil karimi anil ada wa fiha liman xaafal xila mutaazilu ne suuf si yaatu na lool kuy ragal ku la lor mën nga fa làqutu ji waaye ku bëgg njariñ itam suuf si yaatu na bu mën nga mën nga mën ngaa wuti njëriñ ci suuf si kon xasd bi buñ ci duggee mooy dafa wax ne moom fu yaakaar ne bu demee fekk fa yàlla nee na foofu la jëm xam ne nag yàlla ngi ci barab yëpp xam ne ne yàlla ngi ci barab yëpp waaye barab boo xam ne barab bu dal lay doon barab bu wéet lay doon barab boo xam ne barab bu ñu nangoo ñaan lay doon nee na barab boobu moo tax muy wax ne yàlla fa dem fekk fa kon day wane Tuubaa moom ci junj bi dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne suñ borom tabaaraka wa taala ak leeram mi ngi fi waaye naggu ñaanam mi ngi fi moo tax sëñ ñu toxal ay jéego ngir ñëw fii sëñ ji li kon taxalixaat yi nga xam ne moo ñëw ci buntu boobu itam euh, bari na ay njëriñ mu làmboo ngir ñu def rek xaatima ci loolu mbokk yi doon def commentaire muy li suñu waxtu mu xaddima bi ci li ñu xaar ci nit ku am xel nee na war na yittewoo ci wépp waxtu loo xam ne danay dolli koo ci moom wala danay dolli koo xam-xam ak maarifa maarifa nag mooy nga am ràññee waaye itam war na ci yow itam ngay def toujours ay iktishafaat di trouver yeneen di mbir yoo xam ne da ci mën a jëriñoo ci lu adduna ki nga xam ne dafay jeex waaye itam ay xam yoo xam ne da nga ci mën a jëriñoo ci lu àllaaxira nga xam ne dafay sax ba faaw nee na nag nit ki war may euh, farlu ci euh, àgg ci hadaf boobu noonu mooy objectif boobu nga xam ne moom la am. war naa xuuc xuus ci géejug baxsu ba mën a àgg géejug gëstu ba àgg ci la koy may loolu loolu itam nag yëmul rek ci xam-xam bu ñu waxee xam-xam nag euh, li ci gën mooy xam-xamu diine waaye yëmul ci loolu rek même ki nga xam ne ab uddi la wala ki nga xam ne ab tëbbi la war naa mën a fexe ba la ay maam doon defar ak ay bàyyam moom mu bu ñëwee mu def ci yeneen i euh, évaluation yu yees ba àgg fii ni ñëpp àgg ci xam-xam kon bu ñuy wax xam-xam buñ ko tënk rek ci ki yorob téere di jàng waaye lam doon na ci ay maam ci ay métier sax war na ko war na war na caa def ay yeesal ak yeneen i création yu yees ci bépp anam lool loolu itam dafay ñaax rek ñaax société bi ak bépp ndaw ci lépp lu mu yëngu rek ndax bépp métier xam-xama ko laal bu ñuy wax xam-xam ci lislaam dañuy gis la xam-xam bi nga xam ne moo lay may nga mën caa jàmm yàlla waaye itam xam-xam bi nga xam ne ci ngay mën a liggéeyee ba jariñ ci àdduna jariñ ci ñeneen itam loolu mooy jarale ab xeet ca kanam kon mel na ne al insaanu aqil loolu bokk na lañu xaar ci moom xas bi itam mooy rek di wër borom subhanahu wa taala ci pàkk ya nga xam ne ca koy mën a jaamoo pàkk ya nga xam a liggéeyee liggéey ji itam liggéey boo xam ne nit ñi dañ ca jariñu ci àdduna waaye danañ ca jariñ ca ci àllaaxira loolu nag mooy li waykat doon wax rek naan laa taqul asli wa fasli innama aslul fata ma qadil xasal nee na bul sukkandiku rek ne diw mooy samay waajur wala ci askan sàngam laa bokk waaye mu ne nit la nga xam ne loolu la war di tiitaroo mooy la mu am loolu nag nit ku nekk war naa def ab jéego ngir àgg ci loolu kon dañuy jóge ci loolu point boobu dugg ci xaritu Touba Bogo maanaam dëkk bii nga xam ne nag mooy Touba Bogo yi nga xam ne moom la suñ bi junj ak al muhamaraat yi ñu boole ko point bi ci topp muy asalaamatu wal aafiya muy jàmm ji nga xam ne nekk na fi ak tawfiq bi ak dal ak dal gi loolu itam barab bu nekk daf koy aajoo nit mënut dund mënut a yàlla wala mu dund ci barab boo xam ne amul kóolute amul sécurité amul jàmm lan ma wund jàmm jooju ak li tax mu am fi kon dañuy jox mbokk yi rek ñu leeral ñu leeral point yooyu ñu a jaraat allah ñu def ci anam goo xam itam gàtt incha allah rabbi bismillah al ustaas sëñ ji li ak mbokk yi nga xamante ne jiitu nañ ma si kàddu gi si taaliqaat yu am solo yi xam naa fii moom du gudd ndax benn poñ rekk laa fi gis mooy sëñ bi dafa wax ci téere bi ne li mu seetlu maanaam ginnaaw bi mu fi duggee xalwa diirub ñetti at nee na ginnaaw gi daal yëg na ci boppam maanaam ay digganteem ak boroomam si wàllu ruux nee na yëg na si loo xam ne moom mënu koo nettali ci lu ci lu ci lu baax si si yokkute mu ne daal bi mu fi defee euh, xalwa boobu muy ñetti at ci Touba Bogo gi mu ne yëg na ci boppam digganteem ak yàlla loo xamante ne euh, mënu koo wax waaye am na tamit leneen lu mu fi wax ci benn xissa bu mu nettali boo xamante ne euh, li ci am solo rek daal mooy am na ñaari xale yum joxe woon ñu jàngi ñu jàng ci fii ñooñu xay na mujj nañoo ñibbi seen kër waaye si li am solo li ma tënk daal si am solo rek mooy nee na jaar giñ fi jaar rek moom jaar giñ jaar tubaaba ko rek moom gis na ne am na lu mu def si ñooñu si lu baax am na benn jeexintal bu mu def si ñaar ñooñu kon fii li mu fi bëgg a wax rek ne mooy kon moom jàpp na ne Touba Bogo ah, muy dëkk bi dëkk la boo xamante ne comme li mu wax ci ginnaaw rek euh, mënees na fee wut yàlla comme ni ko sëñ bi waxee comme li mu wax nag ne may yooyu nee na mënu koo leeral tamit loolu moom luñ xam ci nitu yàlla yi la comme li imaam Ghazali doon wax rek ci benn bayit moom it bi mu duggee xalwa xalwaam boobu fukki at bi mu génnee benn bayit la wax ne fa kaana maa kaana ma las azkuruhu fa zunna xayran wala tasaanil xabari ne ne li ma yëg daal moom ba boo nga njort lu rafet waaye mënuma koo leeral loolu moom daanaka sax mooy tax sëñ bii li muy wax ci masaalik naan gaa yu baax yi seen wax bu la jaaxalee neel neel man maay man ñoom ñooy ñoom yu mel noonu moo tax ndax day day nekk mbir yoo xamante ne doo ko mën a leer ay yëg-yëg lay doon waaw kon foofu daal daanaka euh, benn point boobu la laafi na te mooy ne sëñ bi nee am na fi salaam mooy jàmm aafiya mooy aafiya mooy jàmm rek am na fi tamit yokk na fi sa si wàllu digganteem ak boroomam eh, loo xamante ne nee na mënu koo nettali waaw xam naa ma jox naaw bi sëñ bi tënkee ci njëlbeen xëy na eh, li ko tax ba eh, ba ci jëmmi yëf yi dëgg nag muy jëmmi dëkk bii di Touba boobu waaw euh, day mel ne laata muy ñëw Touba Bogo dafa nekkoon ci benn situation ak benn xaala maanaam benn euh, tolluwaay daal boo xam ne xawoon naa doon ay xat-xat tuuti ci moom mu mel ne euh, loolu nag damay nuru lu bari waa këram mi ñi nga xam ne ñi ñoo ci la ci la ci la jóge ba egsi muy jëmmi sëñ bi ci boppam radiallahu taala anhu Cheikh Mahamadou Fadil tey xool seen i taarix seen histoire da ci gis yu mel noonu mu ñu ci bërëb ne ca ay xat ñu toxo dem ci beneen suñu defal leen fa ay may yoo xam ne ak i wuññeeku ñàq rek tiis tiis loolu day mel ne la kon loo xam ne euh, day day woy rek loolu laa ci njëkk gis loolu laa ci njëkk a dégg waaye li ci desaat mooy wax gi muy wax ne euh, bi mu ñëwee Touba Bogo def fi ñetti at yoo xam ne da cee da daa daa tëju yëg na ci boppam loo xam ne mënu koo wax mënu koo leeral ndax nee na yëg-yëgu boppam la boo xam ne même ku ko dundu sax ni mu ko dundee daanaka mënu koo kii loolu la wax. loolu liñ ci dégg li ñu ciy dégg mooy euh, waxu ko nii rek ngir wax ko déedéet waaye ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu jànge ci comme li ma waxoon ci njëlbeen rek euh, ñaar yi kese moo war a tax ñu toog fi jariñu ci liñ fi wax ci xam-xam waaye itam jëfe gi moo tax ma jàpp ne kon li tax mu koy wax mooy dañoo bëgg a xamal ne fii kat am ay mbóote ngi fi comme ni nga xam ne nit mën naa dëkk Touba ba jóge fa te du xam dara ci la ne Touba ci ay mbóot ak sëñ bi ni mu koy wax lépp na ko noonu itam Touba boobu rek li sëñ Fallou wax lépp ak moom mii li mu wax ne dundal na ko boppam yëgal ko boppam lu mu ci wax képp koo xam ne eh, yëgoo ko eh, jéew moo ko yëg mën nga fee nekk ba nekk wala yaasu billaahi taala yal nañ ci yàlla musal ñun ñëpp te ñu tawfeex ñu yëg njëriñ loolu te jëriñoo ko ñun ñëpp ak mboolem jullit yëpp rek ndax ak yàlla yaatu na te ñëpp ci xaj xam naa loolu tax laa biir googu nag moo ko yóbbi lool loolu nag day doona loo xam ci yonent saa sallam lay jóge di rogalaat beg si suñ Tuubaa ba ci suñ Fàllu muy loo xam ci lu baax jëm koo laabire loolu tamit yëg naa ko ci bu baax comme ni nga xam ne sallallahu alayhi wasallam ci waa gi mu daa woo nit ñi ñuy xaw a bañ tuuti moom ci boppam da ci daa yëg tiitaange ak njàqare ba nar a alal boppam suñ borom bu ñëw sax da koy defal naa man mii ma xam ne leen moom bu neexoon ma gëm loolu ñoom ñëpp wa in kaana kabura alayka iraaduhum fa in istataata an tabtagiya nafaxan fi l ardi aw loolu nag loolu de mel na dama koy bi ci waxin waaw mel bu sañoon daal ñëpp yëg njariñ la ba noppi jariñoo ko waaw mu yëgal ñu nag ne am na ñaar yoo xam ne moom mi ngi ci dëkk bi muy asalaamatu wal aafiya salaama ak aafiya nag sëñ Tuubaa daa waxoon ne moo gën ci lépp lu ci àddina ak lu ci biir àddina lu ci biiram lépp jàmm ak ak aafiya moo ko gën jàmm nag ak aafiya dañu xaw a nuroo te xaw a teqalikoo tuuti ndax salaama mën nañu ko wax ne mooy nga mucc ci mboolem lu ñuy ragal ak mboolem luy lore waaye aafiya tam mooy nga wér ànd ànd ak wérug yaram waaye boole ko am am looy mos mooy kon day mel ne mucc ak mos ñoo boor ànd na ci dëkk bi ci kaw nag ci kaw ñu jàpp ci sabab yi nga xam ne yàlla teg na ko ci kaw suuf te mooy liggéey góorgóorlu jaamu yàlla jubal Euh, yaatu dënn euh, laa ci nit ñi jikko yu baax yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a jariñoo ci yi ko yàlla defal faaw buñ ko defee rek ñaar yi mu wax dañ koy daal di gis amul sikki sàkk incha allah yi am na solo kon ngir njëkkante waxtu yi ba tey day ñëw rek jox al ustaas Njaay moom itam mu ñëw ci xarida Tuuba boobu asalaamatu wal aafiya incha allah rabbi kon xam naa fi sëriñ Cheikh daaneel rek foofu laay jële mooy dëkk Touba Bogo bi comme nee moom sëñ bi fam daanele nee na dëkk bi dëkk bu bu dal la maanaam climat bi fi nekk climat bu boo xamee ni climat bu baax la ci nit benn dëkk bu sell la dëkk bu wéet la tamit mënee sa fee wéet jaamu yàlla te doo am lenn lu lay gàllankoor te tamit dëkk bu nangu ñaan la waaw dem na ba ci biir soo xoolee dem na ba ci biir bi mu bi mu xoolee coppeeku googu mu fi gis ci ci ci jàmmam ak aafiyaam dem na ba di misaal ci biir téere bi ne dëkk bi day daa mel ni ah cheikhu tarqiya la dëkk bi jëmm dëkk bi ci boppam maam suuf dëkk bi ak jaww ji ak climat bi dafa mel ni cheikhu tarbiya la te loolu nag du lu du luy bett kenn wala mu be warta bett warta jaaxal benn murit ndax dëkk boo xamante nii sëriñ Mouhamadou Fadal Mbacke moo ko sanc def ko ay tool di fi liggéey lu mu fi liggéey lu ci am lépp da daan da daan def nisar buy tàmbali liggéeyam ne lépp lu ma ci am mu ko jëfewut ci jëmmi yàlla yàlla li ma fi ji na mel ni xorom kon loolu defe naa ah, suñ ko waxee ci dëkk bu mel nii luñ ca mën a wax at tamit mbooloo ma fi newoon tërbiyee gañ fi amee ah, loolu tamit mën naa jeexital ci dëkk bi ba dëkk bi sax maanaam suuf si nekk suuf su barke soo xamante ni loolu dem na ba sëñ bi ci moo ko bind mu ci téere bi mu ngi koy misaale ne dëkk bi day mel ni da mën naa koo misaale sax comme seexu tar seexu tarxiya day day tarbiya nit ki tarxiya ko kon loolu du du lu tumuranke ci dëkk boo xamee ne ku toll ni eh, Serigne Mouhamadou Fadal moo ko sanc ak liggéey bu réy bi mu ci liggéey lépp luñ ci jëlewoon jëme ko ca liggéeyu jumaa jee ah, ak liggéeyu liggéeyu Serigne Touba bi mottali loolu kon loolu def naa du loo xamee ne dina tumuranke ci benn murit ah, suñ wax suñ déggee wax jooju kon foofu daal laa gis ne mbokk yi foofu point boobu lañ xawoon a kii mooy dëkk bi ka seex ka seex tarxiya sëñ bi juñu na ko ci téere bi te loolu luñ mën a luñ mën a luñ mën a xam la layal ci ci ci ci ci kon naa daaneel foofu incha allah ba ci. sant bu baax ñi nga xam ne jaar nañ fii ci leeral yu am solo yi day mel ni nag ponk bii moom mooy ponk bi fi ñu doon jaar fépp dañ fa doon jaar rek waaye dëggi dëggi waxtaan wi. lubbul mawdoo mooy xariyati tubaab Bogo mooy dëkku Touba Bogo bu ñu la laajoon lan mooy tubaab Bogo ngay wax ni dëkk la boo xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko sañc bi mu koy sanc daa waxoon ne bi ma ko sëñ Touba diggalee ak bi ma ko sañcee juróom fukki at ak ñett la biñ ko xoolee day mel ni kon mi sanc Ndindi 1913 la ko sëñ tubaa joxoon diggal mu sanc tubaa boobu loolu lañ ci mën a jàngat ñaareel bi ñaareel bi mu sanc ko 1964 jëmmi dëkk bi waaye ñu leeral ne daara yi am nañ fi ñaari at dëkk bi doog a sanc 1962 andi nañ fi daara ñu nawet fi ñu yóbbuwaat leen ndindi ba ci déwén sa 64 la sëñ Fall doog a ñëw sanc fii dëkk bi nekk ci listixaar koo xam ne ku déglu waxtaani sëñ Cheikh Assou Faye mi ngi koy leeral ànd ak sëñ Modou Bousso Dieng mu ne dafa yoroon ay cartouches bari cartouches sama bal yi day bu ma ci amee ñaari ñaari rabi àll dinaa xam ne fii mooy dëkk bi sëñ Fallou doon wër moo ko ci amul nag ma xam ne listixaar gi baaxul nee na balam yooyee na mu ko nësëree woon noonu la ko amee mu jox ko sëñ Fallou sëñ Fallou ko waaye mi ngoog waay mi ngoog dëkk baa ngoog muy Touba Bogo Cheikh Mamadou Fadel sanc ko ngir garde yi mu amoon maanaam bu daan sanc dëkk lenn képp ma doxoon ma koy sanc muy liggéeyal sëñ Touba rawatina juma liggéeyal sëñ tubaa jumaam jii dëkk bii di dëkk bi mu mujj liggéeyee sëñ Touba di dëkk bi mu bi mu liggéeyee li mujj dem ci jumaa ji fii la ko defe dëkk bi moo eggale jumaa ji kon a xam na ne barabu sëñ Touba bii jumaa ji moo njëkk egg barab bi mbooleem li ñu ko liggéeyee lépp Touba Bogo lañu ko lañu ko bàyyee di dëkk bi nga xam ne itam bu sëñ Mouhamad Masamba Diop di wax ne niamun mu daqara loolu sëñ Fàllu moo ko firi ndax si yëpp borom dër bi Baye Fàllu ba yàlla na ko yàlla yërëm seetaan naa ko benn vidéo muy wax ne Baye Thierno Ndiaye bi naan daw la seen borom dër moo ko wax ne ko fukki at yu mat sëkk si yëpp daana jóge Daaru Rahman dawal otoom di gis leer gi ba agsi fii leer gi réer ko. mu wàññeeku jibbaat fukki at yu mat sëkk fekk leer gi fi nekkoon sëñ Fallou lañ ko fi denceloon moo moomoon dëkk bi moo ko war a sanc waaye tiiwut gaa yu baax yi doon nañ gis leer gi di ko topp li nga xam ne Cheikh Omar Foutiyou Tall doon na wër Mbàkke gi ñëw ba Mbàkke Bawol gi ngir leer di xencu leeruk sëñ Tuubaa gi dëkk bi itam noonu la meloon ci gaa yu baax yi li sëñ bi di junj ji ak niamaan niamun mu daqara mooy bi ñuy xibaar sëñ fol ne ko jumaa ji mat na ci néeg bii ci biir kër gi lañ ko fekk ne ko ne ko liggéey bi mat na liggéey bi jumaay tubaa ji egg na mbégte mu rëy moomee mu amoon mi ngi ko amee woon ci néeg bii ci biir kër gu mag gii bokk na ci fii la mujj dëkk moom Cheikh Mouhamadoul Fadal yemu ci waaye dafa woo mbooleem bokk yi ak mboolem taalibe ak seex si ñëw fekk si ko fi mën ne leen dëkk leen fii di fi jaamu yàlla di fi fàggu lu lew dinaa leen fi defal ab jaamukaayu yàlla ngeen di fi jaamu yàlla bu ajjuma jotee ngeen dem Tuubaa julli ji te ñëwaat xam naa li tax ba tey mënaguñoo julli ajjuma xam naa looloo looloo tax ba tey mënatuguñoo am jumaa comme daa waxoon ne bu ajjuma jotee ngeen dem julli ji ñëwaat moo tax ba léegi ñuy julli jekk ñëwaat rek bokk bi jumaa ji eggee mag ñi doon liggéey ànd ak moom liggéeyal jumaa ji fii la leen wàccee fii la leen gërëmee bàyyi seex ndindi jaay nee na di leen woo bañ daje mu ne leen yéen da ngeen a am tawféex ndax mag ñi àndoon nag sëñ Tuubaa day ku ci masaa xëy bëggug sëñ bi ngay wut te moom ak bëggam neexutoon a xam ndax yàlla képp la bëgg yéen nag sëñ Tuubaa moo leen joxoñ ab bëggam ngeen defal ko ko ba mat lu ci waaye bayee te na lekk li sëñ Tuubaa bëggoon defal ngeen ko ko muy jumaay ji ci la jógee kama xat kunta taamulu yaa qadima bihi unita fi daari naim wa kun fi nicmatin abadan muqima muaafan murtadan cheikh alxadim fii la jógee dem bind bayit yooyu ne sëñ Tubaa liggéey bi ñu doon liggéeyloo defal nañ la ko ni nga ko bëggee kon nekkal ci jàmm ak aafiya ci àjjana yi nga xam ne ci nga nekk bokk na ci kon xam na ne sëñ Modou mi ngi koy junj ci téere bi bu ko fii la amoon yéene yi li des si ak mu nekk ko ba génn àdduna fii la ko bëggoon a defe moom sëñ Fall mag ñi ñoo dem ba remarqué loolu ci moom mu toog Touba ko rek ba màggalu Touba jot ñëwut ñu dajee ne ah ci njurul sëñ Modou Xaban nañ dem wax ak moom lu ko may bogo lay màggale te bogo neexut a dem ñëw fii waxtaan ak moom ba convaincre ko doog a ànd ak moom yóbbu ko Touba waaye fii màggal gi mujj a màggal fii la ko ndoroon a màggale fii la naroon nag demee ci boromam tabaaraka wa taala sëñ alaaji nag day wax ne sëñ Fall bi muy ñëw fii jëfandikuwaay yi mu doon liggéeyal sëñ Tuubaa yëpp da ko fay àndaale te bi mu jógee fii liggéeyalaat sëñ Tuubaa feneen kon jëfandikuwaay yi mu doon liggéeyal sëñ fii la ko bàyyi Tuubaa bokk mbooleem jumtuwaay yi mu doon liggéeyal sëñ Tuubaa mi ngi ci dëkk bi Tuubaa ba ko bàyyi ndax fii la mujj liggéeyal sëñ Tuubaa moom Cheikh Mamadou Fadil bokk na ci bi muy sanc dëkk bi ku ne xam na ne lim amoon ci ab àndul ci ab lim ci ay donga matoon na ëpp na téeméer waaye defoon na fi fanweeri daara ak ñeent ak ñett benn nawet ba mu fi njëkk nawet juróomi téeméeri buntu kër fekk nañ ko fi moom sëñ Fall buntu kër bu nekk li nga soxla ci wuju jox na la ko li nga soxla ci dund jox na la ko li nga soxla ci matériel jox na la ko juróomi téeméeri buntu kër nawet bi mu fi njëkk nawet moom sëñ Fallu ñoo newet ci dëkk bi di Touba Bongo bokk na ci yi sëñ bi di junju mooy barab yi fi nekk bu ci nekk sëñ sëñ fàllu moo nësër fam nekk moo ko fa def jàkka ji sëñ fàlloo ko tàmbale woon sëñ jili mii Cheikh Mamadou Fadal borom dëkk bi nee na bi may jébbal sëñ fàllu sama kamil fii ci dëkk bi booba bu ma taxawee damay tolloog jàkka ji kon sëñ fàllu moo tàmbale jàkka ji forage bii maa dégg ci alaaj baare kenn di radiyallahu anhu mu wax ne keroog bi ñuy gas forage bi sëñ Fallou muy jiitu ngi topp ci ginnaawam ba mu agsi bi daal di këdd gas leen fii waaye dina bari dina neex gas leen fii dina bari dina neex bu ñu demee ba réew mépp di naan ci ndoxum Tuubaa ba ko ndox ay noo ngi tasaaroo waxi sëñ Fallou jooje moo tax dina bari dina neex dina neex kon mbooleem barab bi ngeen fi gis yëpp. sëñ Fallou moo ko programme boppam ba sax barab yi nga xam ne sax daneew nañ ko fi bàyyi lu ñu weex ni sëñ Modou mi ngi koy junj ci téere bi nee na moo tànn barab boo xam ne nee nañ ko fi bàyyil tubaab yi ni ñu ñuul ñi ni ñuy weex ñi sëñ muut nag mi ngi soññee di wax ne comme ñooñ ñoo fi am wàll ci dëkk bi te faw dañ ko jël si buñ ñëwee nañ ñu fekk ñun ñu jekk ñu nañ fekk liñ fi war lu ñu for lépp ñu am ko fi ba buñ ñëwee fekk nu nun ñu jël suñ wàll ba noppi soññee bu mu def la ci dëkk Touba boobu mu am loo xam ne nag bi ma yëree teg téere man sama yëg-yëg damay jàpp sëñ bi sama yëgal gi loon bind yëg-yëg bi mooy li mu wax ni dëkk bi cheiku tarbiya la Touba boobu ñaata téeméeri nit ñoo fi jaara ci dëkk bi tarbiya wu fi néewaare nga gis ku fi jaar ba noppi di rëccu lan moo tax rëccu jaar gi mu jaar Touba boobu ca njëlbeen ga sëñ jili yaa ngi dégg muy wax ñaari xale yi mu joxoon sëñ alaaji ne yàgguñu fi waaye bi ñu demee moom yëg na ne jaar gi ñu jaar Tuubaa bu kenn ci ñoom ay xale yu ndaw lañu ñu woon nun nag nun nun nun ñi nga xam ne mën naa ko wax sama jëmu waxaaleel ko ñi fi jaar ci ay doogee tërbiya nan ngay yëgee dëkk bi nekk gi mu nekk seexu tarbiya ak ajo gi muy aju ci sa xol mooy boo demee ba wàcc ba ñibbi sa kër yàlla xam na ne tubaab boo ko dee ci sa xol da ci taq boo fi jëm see da ngay man man man personnellement bu ma fi jëm see damay bég damay mel ni maa ngi jëm aljan te nag coono ba ne dañ naa ko fi waaye bëggeel googu day des ci sa xol ñaareel bi itam mooy jàmm ak aafiya mu wax mën nañ koo tàgg mën nañ koo jàngat ci jawaanib yu wuute la ci jiitu mooy jaanib ruux yi dëkk bi ci wàllu ruux ci wàllu jaamu yàlla néewaana dëkk bu mel ni Tuubaa bokk doo gis lu lay dérange doo dégg lu lay dox sa diggante ak suñ borom mën nga fee wéet jàmm yàlla ni nga ko bëggee te ñi fi nekk ñëpp xam nañu dëkk bu ñuy nangoo ñaan la ngir dëkk bu ñuy nangoo ñaan bokk na ci liñ koy xamee mooy waaju baax dafay nekk def fa jëf ju baax ji suñ borom nangu laa chaque année Touba Bogo gi sëñ lu mi fi nekkoon liggéey la fi sëñ Touba liggéey boo xam ne kenn wérante wut ne sëñ Touba nangu na ko. nekkoon fii ak ay gaa yu baax ay mag ñoo xam ne tey ko ci tudd ko ci tudd rek mu doy sëkk na njabootu sëñ Fallou gi niñ ko bëggee woon sëñ Modou Moustapha sëñ Mouhamadou Moustapha Fadil ku ne xam na ni 1998 bi mu ñëwee fii ci moom lañ déggee mu ne sëñ Fallou nee woon na dëkk bi kuy yàqu du fi ñëw kuy yàq wala du fi ñëw kuñ munta defar du fi ñëw ci la waxoon ni ñibbisi na bis ni ki tey ñibbisi naa Baye Marou Bassil la yàlla ko yàlla yërëm daal di jooy daal di jóg dem daal di wax ni xamu leen di sëñ Mourou wax sëñ Mourou tàgg nañu boppam ba waxee ne fa suñ fa suñ toll tolloon tolloon naa fa waay ba ci bis ni ki tey ñibbisi naa Baye Baye Marou ba ne sëñ Mourou tàgg nañu boppam te yëguñu ko ñaar bi mooy sëñ jili nii nga xam ne moom la sëñ Fallou tegoon dëkk bi maam moom la sëñ Mourou tegoon dëkk bi ci loxoom ginnaaw sëñ Fallou ni mu bëggee woon Touba Bogo man mas naa ko mas naa ko nuyu ci laa ko mujj a gisee muy ànd ak sagoom di dox ma jox ko loxo jaarul sama sant daane ma ana waa Tuubaa boobu ma ne ko Mbàkke ña nga fa sëñ alaaji sama sëriñ imaam bi mu ko mujjee fekk daarul ma naan dafa génn ànd ak àll ju rëy rëy ma laaj ko suñ bu ko laaj sax damaa toog ci oto bi rek ba ba mu noppi ba dal daal ma sëñ jil day li ma wax moo ma moo ma yëngal dane ma lu ma nar am ëllëg yowmal xiyaam naru mu koo bokk ak waa Tuubaa ko yàlla bu ma am te sëñ Fallou daana wax mag ñi ne leen li ma sëñ Touba jox ëllëg yowmal xiyam Touba booga laa koy séddale li ma sëñ Touba jox ëllëg yowmal xiyam Touba booga laa koy séddale bokk na ci wax ji mu waxoon ne bu réew mépp doon tàkk Touba booga du saxaat bokk na ci li mu waxoon ne am nawet sax bu réew mépp amut Touba booga moom dinañ mos ma ñoom dinañ mos loolu day wone jàmm ji fi sëñ bi remarqué ji mu fi dund ak afiye ji loolu lay waral. boo ñëwee ci wàllu wér-gi-yaram fi ne bu ngeen ko fàttewut am na médecin yu fi ñëwoon di wër dëkk bi di xool ndax ay am na ay fayrosat maanaam ay ay ay ay épidémie ay tawat wër nañ ba sonn gisuñ dara ñu ne lenn képp lañ jàpp ne moom lañ war a réparé ci dëkk mooy wutal leen ay suturukaay ndax dem ji dem gi ñuy dem ginnaaw kër ci ginnaaw kër yi mën naa indi jafe-jafe dëkk bu ñu dem mën nañ faa seetlu ne am na ay tawat yu fay doxantu ba mu des Tuubaa bokk boo ñëwee ci wàllu économie dëkk bi li ñëpp manqué moom la am muy suuf macha allah am suuf su yaatu am ndox mu neex am ay am naataange ami garab lu ñu bari lu ñu bari di jàmbat ci wàllu environnement mooy boo demee garab yi dagg nañ ko amatul ci ci àll bi fii nag boo ñëwee fekk fi ay garab fekk fi suuf fekk fi ndox mu neex fekk fi maanaam jaww ju ju dal jaww ju dal joo xam ne tàngul bu ëpp waaye seddu tam bu ëpp yooyu ay xéewal la yoo xam ne sëñ bi remarqué na ko ci dëkk bi la des mooy bi ma sëñ jiri doon wax mënuñoo wax dëkk bi ba noppi fàttaliku wuñ mag ñi fi jaar dëkk bi sëñ Fall dafay andi woon ku ñu wax sëñ Abdul Karim Bousso moom képp doyoon na bu nekkoon ci ab dëkk ba jóge fa dëkk booba doon dëkk boo xam ne dëkk bu ñu nangoo ñaan kenn wérantuut ak wilaayaam gi ca mag ñi ko xam muy sëtub borom daara Muxti di sëtub sëñ Tuubaa di bi soxna Faat Cerno mooy taawu borom daaru mooy waajuram soxna Roqaya Mbàkke moo bokk ak sëñ Tuubaa lépp moo bokk ak sëñ Tuubaa wenn waajur mooy waajur sëñ roq ya muy waajuram kon sëtub sëñ Tuubaa la sëtub borom daaru la sëtub sëñ Buso bi la suñ sàllu andi ko fii mu yoral ko dëkk bi nekkoon ci jàkka ji di jiite waaye uufa dëkk bi yépp nag ci taxawaay bu am solo ci jàngal leen ak yar leen ak tarbiya leen ginnaaw sëñ Fallou mu taxawul taxawaay bu am solo mooy booba fanweeri daara ak nangam yi fi sëñ Fallou bàyyi woon daara ju nekk day xëy dem fa bu demee danaan leen maanaam bu leen soppi seen cin bu ngeen toggee ab laax nañ ko bokk bu ngeen toggee mbaxal nañ ko bokk lu ngeen togg nañ ko bokk yendu fa ak ñoom di leen delloo ci sëñ fallu di leen xamal ne sëñ mudu mii sëñ fallu bàyyi daal jàpp leen mooy jëmbi sëñ fallu sëñ fallu jóge képp koo xam ne la sëñ fallu dëgg la jàppal ci sëñ mudu mii ba daara yëpp ne nër benn daara yënguwut dinañ fàttaliku itam ku mel ni Baay Ibrahima Njaay ku xam na ne njëkk sax bàyyi daari njaay ndax moom doon na chef de village yor dëkk bi di mbokkum ñépp nga xam sëñ ma bànji xam ne li mu doon ci sëñ Tuubaa mu ànd ak ma Maodo Faara jox ko léppam sëñ Fallou bàyyi ko fi mu yor dëkk bi yorin wu rafet ànd ndog mbokki taalibe yi ànd ak sëñ Muudu lii dëkk bi laaj lépp mu taxawoon ca ba tey loola andi doomam ju baax ji wutu ko fi di sëriñ Muudu Baye Ibrahima Ndiaye itam ci tànk yooyu di mbokkum Baye Idaali ñëw taxawu taxawaayam boobu mu taxawoon ñoo xamoon ko ci fulla ak fayda ak njàmbaar ak ngor nga xam ne kenn mus sa ñaaj dëkk bi bi mu fi nekk ku mel ni Baye Fallou ba loolu la wax ci moom ku mel ni Baye Modou Ba Silla ku mel ni Baye Sam Ñang ba ci ñoom ñëpp nga xam ne jaar nañ fi ci ay góor yàlla jàpp naa ne kenn ci ñoom képp bu fi nekkoon ci dëkk bi bu fi jógee. ba ci moom bàyyi ndindi ñes bàyyi fàllu siise ñoom ñëpp bu fi mën na fee bàyyi jeexeet yoo xam ne lu waaye ñaan dëkk bi mën ko am ngir liggéeyal sëñ moom toppum siti la dalay ne ci yow ba nga jóge fi mu topp sa njaboot du leen bàyyi mukk loolu la sëñ fàllu waxoon nee woon na ngërëmul sëñ Tuubaa toppum siti la day ne ci yow ba nga jóge fi mu topp sa njaboot kon dëkk bu yàgg am mag ñu baax la dëkk bu bari ay njariñ la dëkk bu bari ay ngëneel la li ci sëñ Fallou wax doy na sëkk jaroon na dol sol dalli ñu di dox ba mu ràpp ngir fekke si loolu muy kuñ munta defar du fi ñëw kuy yàq du fi ñëw loolu rek doy na sëkk kon mi ngi noonu ci tënk Touba Bogo daal dëkk la bu sëñ Fallou sanc sanc ko ngir jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ tubaa li sëñ Touba bëggoon sëñ Fallou bëggoon ko di ko ko defal tam waxoon ko ne ku ci raw raw nga ba faw ku ci des ginnaaw des nga ba faw ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci ne buddutoo feeñ muy jumaay Touba ji fii la ko sëñ Fallou liggéey ba mu egg mu dem jébbal ko sëñ tubaa muy liggéey boo xam ne nag moom képp la sëñ Fallou dese woon ndax keroog bi mu eggee da di Senghor bàyyi naa mbay Senghor ne ko ëpp naa def booy bàyyi mbay réew mi daanu booy bàyyi ñëpp di ko bàyyi mu ne ko wutal ma suuf kon wax nañu wutal ma suuf soosee moo indi mu daggal ko Touba ba ko Touba ba ko titre foncier bi mu am benn titre foncier la ci senegal ñaareel bi mu ñëw ba ci digg Jolof mu dagg ko fi man maa dégg Mansour Bouna mu nettali kenn nettaliwu ma mu ne damaa ñëw tubaaba ko sëñ Fall di kaas li tax mu jël tubaaba ko boole ko ci ci Jurbel mu ne ma boo ci waxee dara ba ci sa biir boobee ci Louga mu boole ko ci njëriñ doo ci mën dara moo tax boo jógee boo jegee Touba da nga romb Touba Soroum mu bokk ci région Louga nga jéggi ko doog ko dugg ci biir Bogo loolu moo ko waral sañ sañu Cheikh Mouhamadou Fadel la ñëw ne cuqat Touba Bogo boole ko ci Touba ba mu doon benn ba mu doon benn dëkk ci Touba doon village ci Touba nga xam ne léppam ci Touba la aju bu doon looloo Linguère la ñuy fayee ji lempo fa la ñuy lijjanti ko waaye bëggu bëgg sëñ tubaa taxoon na bëggul dara génn sëñ tubaa kooku mooy Cheikh Mamadou Fadal loolu mooy tubaa bu ko ci gàttal ñu ngi jégalu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mel na ni daanaka rek xawe soon naa mun tëj jotaay bi ngir yaatal gi nga xam ne yaatal nga ko ngir buñ toppee bunt yi xam na xëy na dina gën a guddi ndax min wi lañ bëggoon a tëj te li ci ñëw ci téere bi bari na bari koo xam ne xëy na buñ ko toppe itam dana gën a guddi mu mel ni dëkk bi daal mboolem njëriñ yi nga xam ne làmboo na ko rek lu ci bare bari ñëw na kon dañuy jàpp ne euh, Cheikh Amadou Diop Massamba Cheikh Amadou Fadal rek moo xam ne dafa njëkk li ñu waxal njëriñu dëkk bi waxoon na itam dañ ci yëkkati ay kàddu yoo xam ne da koy tëjee kon euh, li siy Cheikh na tënk rek nga xam ne dëkk bi da koy boole ci pàggu téeb Serigne yi mu bokk ci li wax duuri wa ma yaxtiira min jiraani naajiyatun min jaanibil xusraani samay kër ak li nga xam ne moom suñu borom tànnal day lépp dana mucc ci ak perte mu dugg nag ci jàmm ji nga moo nekk ci dëkk bi loolu itam ñi fi nekk ñoo ko war a xam jëfandikoo ko sëñ bi itam euh, jëfandikoo ko ci anam goo xam dañ leen jëriñ ci anamu àdduna jëriñ leen ci anamu alaaxira nga xam ne day bañ a doon loo xam ne dañ koy waxtaan rek buñ fi jógee ku nekk ne waxtaan wa am na solo waxtaan wa neex na bëgg a jàppe rek ne comme que dëkk bi daal euh, jàmmaan fekk taw fi fi nu ku nekk ma naa bàyyi ko rek ne euh, Sëñ Fallu daal defar na lépp waaye ñi nga xam ne ñoo dëkki dëkk bi ñooy jiima nag dundal loolu ci bennoo ci déggoo ci àndandoo waaye itam jëmmal loolu ci bépp anam goo xam ne rek mën na koo doxal def naa suñu ndajem tey mii day ab jéego la ci ci jéego yooyu ab jéego la bu rëy rëy sax ci jéego yooyu ndax daje yu mel nii ci nit ñi dajee gi ñu dajee ci lañu jariñante ci la lu woon ci seen i yi itam bi génn ca la ñu mën a jariñoo loolu itam fépp fu mbir àgg loolaa ko fa àggale kon lii ab jéego la boo ko defee sëñ bi waxoon na ci tërbiya waaye loolu dañ koy gàttal ndax xëy na sëñ bi bëggoon a jox kàddu sax sëñ Cheikh na am nañu ci junj doomam moo fi nekkoon ci daara ji muy ku ñuy wax Modou Sylla loolu yàgg na kon sëñ bi yàgg naa xemem dëkk bi ndax li may wax ni defe naa diggante euh, tàmbale 2000 daal wala 2001 ba 2005 diggante wala woon boo fekk na sëñ bi gudd fii loolu yàgg na mu yëkkati ñaari xale joxal ko suñu rajo ji nekkoon ci daara ji loolu yàgg na lool waaye itam euh, yëwénu mbir yëwénu mbir koo xam ne nekk na ci dëkk bi ci képp koo xam ne nekk nga fi nag ni ci war a nekk ndax barab itam lu mu baax baax baax te yow ma fa nekk ji moo doxin doxinu barab ba itam man ngaa safaanoo lool nag ak barab ba ku la gis sax defe ne bàyyiwu ko ca barab boobee ndax euh, day arab dañuy wax ne al bia tataathar fi insaan maanaam nature dafay jeexit ci doomu aadama dafay jeexit ci nit ca usus yi nga xam ne ci lañ fondement dëkk bi mbokk yi jaar nañ ci ci anam bu baree bari ci anam gi wax Cheikh Amadou muy liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal yàlla liggéeyal Yonent bi sallallahu alayhi wa ne xam na ne mag ñi fi nekkoon anam giñ fi nekkoon ak lañ doon liggéey defe naa symbole bi mooy jumaa jee nga xam ne euh, monde bépp seet nañ loolu itam nag dafa lëmasoon ci biiru tërbiya ndax tërbiya mooy adab adab boobu nag si Touba dafa wax ne mooy ngën ji leen di sàkku ci àdduna ak alaaxira wa xayru ma tazza bihi si loolu itam dafa bokkoon nag ci tërbiya googu loolu jeexit jooju nag tax na nit sax doon fi jaar baax ndax barab moom bu fekkente ne bii doon na barab boo xam ne yëwe nañ fa maanaam ñaanu waliyu wala nitu yàlla des na fa ak liggéeyam nit jaar fa rek ji ma baax dana ko yomb lool Sëriñ Cheikh Ahmadou Diakhar mi doon wax damay wax ne wa shahida shahidun min ahliha ndax defe naa léppam fii la ko demee ci dëkk bi waa dëkk bi ñëpp xam nañ ko defe naa 93 ba 2008 wala 2007 côté yooyu dafa jóge jógee léppam fii la ko defe kon kooku ku nekk mën naa jëriñoo ci dëkk bi ci anam bu nekk waaye itam mu junj itam ci anam bi nga ko mën a exploité ci wàllu adduna loolu itam su bi junj ne ko kooku yi nit ku nekk war na cee def ak jéego ndax loolu mooy avancement barab bi mu wax itam sahada li nga xam ne sama fadal def na ko ci ci euh, dëkk bi ne képp koo xam ne maanaam nar nga yàqu doo fi euh, nu ko mën ko defar du fi ñëw loolu itam ku nekkoon ku fi nekk ku ne war ngaa ji ma defaru war nga xam itam nag la taxoon sëriñ bi san ci dëkk bi tam mooy la sëriñ Tuubaa bëggoon mooy li yàlla bëgg mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa itam bëgg te loolu des bu séparé benn la loolu yëpp nag da ko tënk ci ak xasida ndax damay def tafleex taxaleex boo xam ne dañu xaar ba dañuy tëj ndax dafay bëgg a guddi boo ko defee dañuy tëj rek campé kii bi insha allah rabbi sëñ bi dafa defoon ak xasida itam boo xam ne moom day baxru baxru mutakaamil boo xam ne itam dafa aju ci li mu doon wax ak yeneen muy wax ne walillahi hamdan ni'matan basutan lana mutashabihan fi shukrihi mus'umrina fi qaryatin qallat biha masalan laha tujad biha توجد بما فاخ فنوني كلنا ومقامها كمقام شيخ ذاته في هديه مترقين مأوالنا mu sant yàlla rek ci xéewal gi nga xam ne defal nañu ko ci dëkk bi gudd na waaye ngir gàttal dañuy leeral tuuti rek ci lim wax ci wolof euh, xéewal yi nga xam ne suñu borom defal defal ko ci dëkk bi mu doon dëkk boo xam ne néewaa na dëkk bu mel ni moom di yi nag dafa war a bëgg barab ba mu nekk mbëggeel gi mu koy am gi mu am ci barab boobu mooy waral mu yëg xam li nekk ci biir barab boobu itam mu ne sax dem na ba ne dafa mel ni seexu tërbiya ndax barab bu fekkee boo fa nekkee say mbir mbir biir mbir biti mën a defaru kon barab boobu dafay barab boobu waaw kay xasida gi moo nekk ni sëñ bi di ma sëñ bi di ma jox hmm. moo nekk ni sëñ bi euh, euh, di ma jox bu ko defee euh, mu ne dëkk bi dafay taxaw taxawaayu sëriñu tërbiya ndax barab bu fekkee boo fa nekkee sa mbir defaru barab boobu lañ doon doy sëriñu tërbiya ma nga ci barab boobu loolu nag moo taxoon ku ñu wax siñ defe naa siñ mut si siñ mut saxeer mbay wala boog maam Cheikh mbay di wax ne lillahi qawmun ida xallaw bi mansilatin xallal ni daa waxal na jëwu am taaru barab yooyu itam bu fa nitu yàlla liggéey bu wàcc fa dana fa bàyyi jeexit yoo xam ne nit ku bëgg a defaroo dana yomb lool si yow muy wax ba tey ci xasida gi ne wa bi murahabin yadxul biha man xaaluhoo saluhat dunaa uxra lahu la aksuna waaw bu demee ba ca mujj ji wax ne ba tey dëkk bi euh, wax wax na ba ak si yi nga xam ne moom lañ fi bay ak yi fi nit ñi mën jariñoo ci wàllu gàncax ak yi fiy jóge ci wàllu koom-koom maanaam mode euh, mode économie bi daal loolu yëpp itam dafay wan fulal gu loolu euh, fulal ak am solo bu am solo ndax nit ki itam wërta sàggane àllaaxira waaye wërta sàggane itam addunaam ndax wala tansa nasibaka min addunya kon xasida gi mel na ni gudd moo tax ma jël ci bayit yooyu rek ku ko aajoo xëy na mën nga koo am bu ko defee nga liir ko wala nga liirlu ko insha allah rabbi ngir ñu jàll waaye xasida gi mm, foofu ma tàmbalewu rek ci la tàmbalee ngir bañ a guddal ba mu ëpp bu ko defee nag mu ñëw ci xaatima bi bi nga xam ne moom la tëje dëkk bi moom moom la tëje boog téere bi di wane maanaam wàccuwaay boo xam ne dëkk bi amoon na ko ci xolub Cheikh Amadou Fadal ci xolub Cheikh Amadou Fadal loolu itam dafay wane solo si dafay wane solo yi dëkk bi ak ak projet yi nga xam ne mënees na ko taxawal ci dëkk bi bu ko defee itam mu soññee mu soññee itam nag ci nit ñi bañ a sàggan ci def ko dëkk boo xam ne da ngay tëdd rek di noppalu ndax barab bu fekkee jàmm ji dafa bari ak euh, dalga boo sàgganee man nga faa bañ a jëriñu ndax day doon dëkk bu noppalukaay ci yow rek te doomu aadama euh, al insaanu ibnu waqtihi la ñuy wax ba tey ndax nit ki lem jëriñoo ci waxtoon rek loolu lay jëriñ bu fekkee ne da ngaa say waxtu noppalu ak dallu man ngaa waru a nga loru te doo jëriñ bu ko defee mu ne nag mën nga doon dëkk boo xam ne liggéeykat man na fi ñëw dallu waaye ke itam ku bëgg liggéey mën nga fay jëriñoo ci anam yu baree baree bare kon daal loolu mel na ni bokk na ci yi nga xam ne sëñ bi indi na ko ak yu bare bare yoo xam ne xëy naa lëm nañ ko rek ngir bañ a gën a guddal tëje ko rek téere bi bu ko defee itam waxtaan itam ni mu wund népp ne dañ ci jul waxtaan bu neex waaye dañ ci jublu nit ñi ci boppam di saasee nag seen seeni seen seen seen i mental maanaam seen i xel nga xam ne fu xam-xam di génn ñu xool nan la def ba jariñoo ko anam naka lañ mën a def ba seen doom kum raw nga fexe sa doom sa doom nan nga mën a def ba mu jëriñu ci xam-xam ci ak ci àllaaxira nga def ci ijtihaad farlu ci waaye itam mbaax boobu di génn ci nit ñu baax ñi ak seen warab yi nga mën a fexe nag ba jëriñu ca waaye itam jëriñ ci itam sa njaboot. nit nag saa bu defee effort dana jariñu ci anam bu mën a doon nit saa bu defee efoor rek maanaam jii ma jariñu dana jariñu ci anam bu mën a doon kon loolu dafay war a yeesalaat xel yi ak xol yi ak jëf yi ak yéene yi ci anam bu mën a doon loolu la bind di jariñ loolu la xam-xam di jariñ itam loolu la bind di euh, bind di jariñ loolu la xam-xam di jariñ kon xam naa bu fekkente ni bii rek euh, Euh, maam Thierno si la day ñëw baax na bu fekkee ñëw itam suñu Cheikh Mbacke defoon na ab xasida boo xam ne daf ko jëmale woon suñ Modou daf ko jëmale woon ci suñ moodu bu fekkee day jël kàddu moom tam mag la woon moo xam ne ci dëkk bi nekk na ci jamono yàgg mën naa yëkkati ay kàddu yoo xam ne dana jëm ci loolu ndax buñu toppee waxtaan dana guddi lool ñu leen diggaat itam dig dajee ci beneen jotaay boo xam ne xëy na mën naa yàgg waaye du sore lii bu suñ maam Thierno pare itam ñu joxaat suñ Cheikh Mbacke rek bu ko defee xasida gi nga xam ne moom léegi la ko tàlli fii jëmale ko sëñ Modou Massamba ñu ànd teewal na ko si la gàtt gàtt na itam bu paree kon dañuy jox si Abdou Mbeng moom tam mag ñi itam day am solo lool ndax ñu fekk démb bu fekk tey danañ a génne lu bari loo xam ne ñu dañu ko jariñoo boo ko defee suñu Abdou Mbeng itam suñu Abdou Mbeng bu yëkkatee kàddoo ñu jox sëñ Modou nag moom mi ne mooy chef du village bi mu yëkkati kàddoo yoo xam ne dëkk bi soxla woon na ko mu jàmbat ko bu ko defee itam euh, am na ñoo xam ne loolu seen wartif la bu àggee sin nopp incha allah bi xëy na dana saafara woo wala dana saafara wu ji billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim barke sëriñ Fàllilu ñu ngi nuyu sunu sang sunu sëriñ Cheikh Maodo Massamba Mbàkke Fàllilu ak mbooleem kilifa yi nga xam ne nii ñoo teew ci jataay bi di ustaas yi nga xam ne lañ lu matal leeral lu ne rek leeral nañu ko kàddu yi niñ ko waxee dana gàtt ndax sëñ bi jeexaloon sànq li ma li ma war a wax ci Tuubaa boobu lépp leeral na ko ci mag ñi fi ne woon ci ni sëñ bi sañca dëkk bi ni mu ko taxaw woon ak ngëneel yi lépp wax na ko te loolu mooy li ci ëppoon ci li ma waroon wax muy li mu wax ne maanaam Cheikh Modou Fadal Mbacke fii la bëggoon a wàcceeb liggéey lu wér la ndax jamono yooyu toog na fi ba ñu ne suba la màggal bis bu mag bi muy altine la fi xëyee màggal googu at moomu mi ngi nekk bisub talaata la sëriñ Fallou mujj a màggal fii ci Touba bisub talaata altine la xëyee fii soog a dem muy bis bu mag bi nga xam ne loolu mooy wéral li mu wax ne fii la bëggoon a màggale fii la bëggoon a tooge ba wàcc fi liggéey ki nga xam ne mooy sëñ Jili Mbàkke moom mu fi newoon mu dawal mu ñu dawaloon ko fii fii la ko jébbale ñaari kaamilam yi nga xam ne bind na ko indi na ko benn yoon jox ko ko ba mu ko joxee sëñ Fàllu daf ne ko tuuti kon de loola mooy waral mu ñu féetale woon fii Tuubaa ba ko sëñ li ñu wax ci li nga xamante ne nii bi mu sañcee dëkk bi mooy dëkk bi nga xam ne moom la mujj a sanc ngir liggéeyal sëriñ Touba te ni mu ko waxee laata muy def loo gëstu na ba bañ xamal ko ne ko fii li ngay li ngay mujj a liggéey ci jumaa ji ci dëkk bi nga koy amee mu soog koo sanc ba loolu wéy it bi mu ko sancee indi àndoon na fi ak ay magi taalibe yoo xam ne nii ñii dañoo nekk yor daara tërbiye yi ñii yor daara yi nga xam ne nii ñooy jàngale daara yooyu danañ ca lim. seen suñu waajur wi ñu doon wax sëriñ Idaali Ndiaye ak baay Daam Ndiaye ak sëriñ Masayer Ndiaye ñu daan ko wax ngumb ak Baye aadama Diop jóge woon guy jama sëñ Fallou toxalee ko fu ma indi fii doon ko jàng ak ku ñuy wax euh, bari woon nañ daal ay daa daara yoo xam ne fii lañ nekkoon di xam le di jàngal tuut tànk yi hmm? waaw maam maam Mor Ndiaye euh, jëwriñ la woon ci daara ji la ne woon moom daawut jàngale maam Mor Ndiaye da jëwriñ la woon ñoom iddaali ak bàyyi daali ak euh, Massaer Njaay ngumbu ak euh, bàyyi Adama Diop moomu ak bàyyi daam moomu ñoo ñoo yoroon daal yi doon doon jàngale ki nga xam ne it moo fi njëkk sañ ci ci kër nga xam ne moom bokkutoon ci dongoy tarbiya yi waaye sëriñ Fallou mu mas nekk mu fekk ko fa mooy ba euh, Baye Cheikh moo fi njëkk sañ ci kër fii ci ci Touba boobu gi kon ñu gàttal noonu rek ginnaaw dañ nañu gàttal di ñaan sëñ bi li mu yéene ci dëkk bi ak li mu bëgg suñu borom may ko ko mu def ko mu toog fi ànd kook nun ba yàlla guddalu fanam ba li mu yéene ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ak Cheikh Madou Fall yàlla may ko mu def ko li mu junj ci téere bi yépp nag mooy nun dellu ci yàlla rek xam ne ab ay jullit lañu di doon ay taalibe li ñu war mooy jëfe ndigal bàyyi tere te bañ a sukkandiku aj suñu bopp ci kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rahmatullahi taala wa barakaatuhu man day sëriñ Fallilou wax dëgg yàlla bi mu nekk Tuubaa boogo mboo ma ngi sa daara ja waaye nag gis naa ko ci nelaw ñaari yoon yoo xam ne la ma wax dara du sa deñ ndax gént naa jóge fii di dox guddi ba ma demee ba weesu déegum dindi bi laa gis ay làmp yu jóge ci kaw asamaan si samp ci soorooru Tuubaa bi ba ma jàkkaarloog juróomi sooroor yépp booba ndindi li ko wër mooy li wër penc li wër penc mi dong moo fi ne ma daal di am ak jaaxle daal di àgg suuf daal di tàllal sama ñaari sama ñaari tànk sëriñ Fallou daal di may doxee gannaaw daal di may wuufal ab machine machine bu mel ne machine rajo yi ñaari contact la yor daal di may sëxër mi ngi sol daraay rombal mbànd kaalawu daal di may yëkkati saa baaraam sànnikaay bi boom di yor bii nii la ma sëxëree daal di may teg ci bouton ne ma bësal ma bës lamp yi daal di fay mu daal di yëkkati sa tànk sama loxo bii baaraam bi teg ko ci bouton ne ma bësal ma bës làpp yi tàkkaat mu ne lii leer maa koy leeral waay lii leer maa koy leeral ma gént gisaat ko ci biir jumaay tubaaj bi ci kuur bi ci diggante barabam bi ak buntu penko bi ñu tegal ko peliaan mu sës rëkk ci buntu penko bi sëñ Abdou Lahad daal di koy féete soow mu ngi sol lu weex waaye sëñ Fallu moom ci peliaan la toog ñu ne fii de la ni attee jaam ñi fii di mooy yow man sëñ Ba sëñ fa Abdoulaat moo jóg ko jóg jóg ba jàkkaarloog jaam ji daane fii si yow man xëyaam day lu waay jëfut doo ko fi fekk daal di koy wax ñetti yoon dem toog fa mu toogoon sëñ Fallou boobu mi ngi wéeru nii si piliyaan bi waaye daal di ndi ba daal di rabbe loxo eh, baaraam yi ne say na man Fallou day sama coobare rek laa yóbbu ni ne àjjana sama coobare rek laa yóbbu ni ne àjjana te loolu ku xam sëñ Fallou xam ne loola lu man la gannaaw loola nag sëñ Abdou da am xar baax ndax daa am at moo xam ne dunoo julli it ba noppi ba sa ngoon nga booba dëkk bi xumb na lool fii euh, gent bi bari tey jii booba moo dëkk moo gën a xumb ci dëkk bi booba góor ñi ak jigéen ñi bari nañ lool ak ak waxambaane yi nu daal di mag ña daal di wut stélé ay sabar daal di tàmbali tëgg sëñ Abdou Karim daal di yónnee ci pénc mi daal ne loolee nii def nañ ko bàyyi li naan tere mu gis euh, tere mu tëx baal mu gis ñu daal ne ah sëñ Abdou Karim daal moo yilimaan ji waaye sa penc mi la la sa a tere waaye dëkk dëkk bi moomu ko booba sëñ Moustapha Bousso mooy mooy chef de village bi mooy sëñ Moustapha Bousso bi sa sëñ sëñ Modou Bousso Dieng joxoon xayra daal di dem fee su fee su wetu kër Baye Baba gi sa àngal boobee ñu daal di def booba baa tere wet ci nga xam ne moom lañ dinki dinki di moom lañ def moom lañ def ay bank biñ tàmbalee ba xumbal ba defee ne ñëw xumbal la gën a yéemaane sa sa sa yëf ya mooy da ab noor kundung noor kundu nga xam ne dara yëngut noonu noonu daa di gis wenn wenn xiir woo xam ne mi ngi jóge si si sowu ne sampuwul si suuf de daa nekk nekk diggante fi fi jant saan di toll foofu la la niir bi la la niir bi ne daa di jàkki-jekki milax daa di dënnu bi mu dënnoo nag laa ne sama rak booba ñu ngi si kër kër Fallou Ba gi bàyyi chef ci bokk moomoon booba fi la bàyyi Matar Ndiaye ne ma daa de sama rak ah man ka dënnu yi noor man xamu ko nan ñibbi bi ma dikkee ba dugg si nekk sama néeg nday ba jël almet gi ba may saa bopp bi tiim euh, euh, euh, kii xadd ba la dund ko daal di wàcc lii naa ni am na yér yërmande mënoon naa dal ci géew bi te kon ñëppay faatu daal jéggi daal di dal ci kër goo penku yëf yu koyee dal ko felee loolee sëñ Abdou Karim ak def na ko ci dëkk bi ay xar ay xar baaxam kon sëñ Abdou Karim moom wàllu pire la wax sëñ Bello kàddu yi kon am na solo ba tey suñ góor a juuf tam dafa mel ne ci ci mag ñi la woon te ma ngi fi teew moom itam dañ koy jox mu yëkkati kàddu rek ci gàttal bokk na ci li nga xam ne war dañ koo leeral ca njëlbeen ga waaye itam euh, xawoon ko fàtte ndax xel day fàtt euh, lépp itam dafa dugg ci waxtaan wi ndax comme comme ñu ngi toll ci mag ñi sëñ euh, Modou Massamba mi nga xam ne moom la Cheikh du Fadal tudde duppee Cheikh Amadou Fadal sëñ Modou Massamba mi itam bokkoon na ci ab liggéeyam ci liggéey Serigne Touba bi ak ci Cheikh fépp fu Cheikh Mamadou Fadal ma a sanc daara rek moom dana def ca wet ga ñaari daara yoo xam ne ay donge boppam la doon yoo xam ne day bokk ci liggéey liggéey Sëriñ Tuubaa bi fépp fu Cheikh Mamadou Fadal sanc daara rek moom dana sanc ca wet ga ñaari daara yoo xam ne ay daara yi boppam lay doon yoo xam ne la ciy jógee addiyee la doon jëm Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne dafa àndoon ak moom liggéey Sëriñ Tuubaa bi loolu itam ca njëlbeen nga waroon naa dugg waaye paas yi kon dañ jox bàyyi góor a juuf rek moom ci mag ñi la woon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sàng bu tedd bi Cheikh Mour Massamba Diop moom Serigne Fallilou noonu lay noyu ci turu Cheikh Abou Cheikh Abou Baraka mi nga xam ne mooy Serigne Fallilou jox cant ak ngërëm mu jóge ci mboolem taalibe yi jaar ci yow jëm ci sang bu tedd boobee nga xam ne moo la jox ndigal lii ndax danga ko wax ci njëlbaan njëlbeenu wax bi yow loo yëkkati lu ne danga ko teg ci ndigal lii itam suñu tuddutoon suñu tur dañuy def ni taalibe yi rek déggalul jëriñu ci ci wax ji wante taalibe moom amul lu ndigal comme digal nañu nag dañ ci barkeelu rek bàkke waaye li li mbooloo mi wax doy na sëkk mat na sëkk matale na waaye sëriñ Faliilu Mbakke moomu nag mi nga xam ne moom la ñu yàlla boole baaxee nu ko kenn la koo xam ne fi mu déggoon fi mu tegoon Sëriñ Tuubaa kenn tegu ko fa man day mos naa gis nu ñu nun dongo yi nga xam ne ab dongo ni ko ñen ñi teg ak fi mu ko tegoon moom te loolu yëpp te fi mu tegoon Sëriñ Tuubaa rek la am na bés boobu noo nga daru miinam mu jógee daaru salaam si Sëriñ Abdou Sëriñ Abdou si Rudis ak Sëriñ Ousmane Bousso mu jóge ca tool yooyee jaasi ci suñu tool ba mu ñëwee ba jub tool ba ñu daal di aw yoonu daaru minam yi ñu sapp suñu gopp daw wuti ko mu ne mu ne alaaj sëriñ wëñul foosi waaye te te gàttandu leen ñeekat ci ñun lañ jëm si ba mu agsee ba ci suñu tànka dafa wax ne daa jaadu jaadu wut ku liggéey sëñ Tuubaa dañu la dañu laa war a fekk fa fa ngay liggéey sëñ Tuubaa ñu jaajëf la wa waaye yéen warul leen a fekk yéen kenn yéen dégal dégal eh, dayu bi mu jox jox jox sëñ Tuubaa ak dayu bi mu joxe ki ngi kii liggéey sëñ Tuubaa ki te boobu mooy sëñ Tuubaa kooku fi mu tegoon sëriñ Tuubaa teg teg fa ku koy liggéey yàlla bareetul ku ku ku fa teg nit yàlla nañu ko yàlla feyal maanaa dëkk bii nag li ci sëñ bi wax rek ñëpp wax nañ ko sax waxit rek la léegi ndax moo waxoon ne ku am ngeen am ku amut it ngeen am waxaat ne dëkk bii day kuy yàqu du fi dëkk ku ñu mënta defar du fi dëkk ku ko xam ne boo fi ñëwee yàqu yàqule doo fi dëkk loolu sëriñ mu mu sëñ Falilu Mbàkke moo moo moo ko waxoon waa dëkk bi wax na ko nun dongo yi Mbàkke yàlla nga fi yàgg te wér na ko mbooloo mi ñëpp maase wax yéene bi nga xamante ne moom nga yëkkati Mbàkke te yéene ko bindeef yi yàlla na la ci yalla dimbale nga am ci ndamal sayir ak baatin nga toog fi am téeméeri at ak juróom fukk lépp nga jaamay ko sëñ Falilu yàlla mën na ko yal na ko def ci barke alxuraan yow dey mbakke dundalaat nga kër sëñ Faliilu gi tey dundalaat nga itam li di ak tarbiya dundal nga dundal dundal li li liy Tuubaa Bogo yal la yàlla taxaw yàlla bu la yàlla bu am ndog mukk ci saayir ak ci baat yi njabar ki sëñ Faliilu Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu kon ngir tëj rek dañuy jox suñu seex mu indi bayit yi nga xam ne ndax bala ma bala ma ko jox itam damay leeral itam ndax nit bu defee ak njàmbaar na kilifa warees na ko njukkal njukkal googu nag bokk na ci la ci gën a bokk na ci lu mel ni eh, lii mu def ndax na nga xam ne taalif itam du lu yomb nekkul rek nit ku nekk ci boppam moom moo koy def parce que liggéey bu muy liggéey dafa laaj ak njàmbaar ak ay coona yu métte métte loolu nag nañ ko xam ndax euh, surtout lim ak lim ndax bind dafay laaj sa xel mi ak sa xalaat yépp encer dara nga di ko def ci li ngay bind ñàkk nelaw guddi surtout nag di bind ci xam-xam ak euh, yoonu yàlla nga xam ne dafay laaj xos la maanaam beru nit ñi itam nañu xàmmee buñ gisee nit koo xam ne dafay liggéeyal yàlla anam yooyu melokaanoo nit ñi nañu xam melokaan yooyu xàmmee nit ordinaire ak nit koo xam ne dafay liggéey yàlla kooku amul jot amul waxtu ku sóobu itam amul jot amul waxtu loolu na ko nit ñi xàmmee danay taxa itam jariñu ndax bind danay laaj ñàkk a nelaw danay laaj beru danay laaj xiif danay laaj yu bare bare bare bari yoo xam ne ñu xam yoon woo xam nañ ko du lu yomb rawatina nag bind ci lislaam rawatina bind moo xam ne dafa jëm ci yàlla ak koo xam ne dafa bëgg a jariñ jamono ak yeneen génération yi ñëw ndax xëy na li mu bind ñun niñ ci mën a jariñoo sax ñeneen ñi ñëw ci kanam danañ ci jariñu jariñu bu ëpp ñun lañ ci jariñ ndax uslub bu muy taalibe uslub bu raar la maanaam façon bi muy taalibe ci ci téere yi bu fekkee dafay wax ci économie wala société wala demee noonu da cee indi uslub bon néewoon na ñi taalifoon ci rawat nag ci euh, ci jamono bii nit ñi ni ñuy taalife wute nag moom ni muy taalife ndax dafay jegeel njariñ ba mu jege loolu nag ab la ab liggéey bu méttee métt jar na njukkal itam ña koy def kon siñ cheikh dama ci anam googu ci laa joxe siñ cheikh mu yëkkati kàddu yooyu ñun bu bare itam ñu def itam ñun njukkal gi nga xam ne moom lañ ko delloo ci xasida googu nuyuwaat sëñ bu baax di sant bu baax ci jataay xanaa eh, bi jataay bi amee dañ cee bég lool rek moo tax doon feeñal suñu yéene ci ndax ci donga bu mel ne man ci eh, ak ci tuut tànk bu mel ne man day doon ak soññu ak royukaay looloo tax rek mu ne woon waaw xam naa ay bayit yu yu néew la yoo xam ñu ngi ko def léegi fii biñ ci moo tax biñ ci jaare ko ci suñu yëg rek rek nag hmm, bismillah araaka wa dawman taxdimu al ilma saaiya li irdaai rabbi al arshi xuzta al maaliya fa anta xafidu cheikhi wabnun li fadlina sëriñ Moodu Jóob ma sàmba faru maqaaliya تصنف في شتى علوم مربيا وتنشر علما نافعا ليس فانيا أطال إله العرش عمرك مرشدا وفي صحة أيضا بنيل المرامية سلام على الماحي مع الآل كلهم ويرضى خديم المصطفى والمواليا ci gàttal Euh, léegi ginnaaw xëy na wolof beeg yooyu waxoon ci moom ñaari bëri rek ngir xëy na ñi fi teewta xëy na arab bi taxuñu kii ci lool waxoon ne liggéeyal nga yàlla gi yónnenam beeg sëriñ bi tey jëfal it sëriñu fàlloo bu ñooñam yépp jëf ju rëy xanaa rek ma ñaanal safan gudd wér gi am te koy ñaanale mbooleem ñi teew fii ci mbaar mi tey wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, shukran lakum xasida gi am na solo lool comme ni ma ko waxe waxe woon rek uslub la rek ci njukkal ñun itam dañuy barkeelu itam ci lool ñu defoon xasida goo xam ne ñu ngi ko tënkoon ci baxru mutaxaarab tàmbale woon ko ci bismillahi rahmaani rahim li karimin safat lahu taxiyaati wan adalat li aynihi al adalaatu wan dafaat li aynihi al wa kalkali qad saaxani ka riyaaxin wa taabaxat mahabbati alxarakaatu li caalimin tafannana fi lculuumi cilma addunaa wa haakada uxrayaatu wa baaricun bi asaaliibi suluukin wa naadirun taatiikahu sayidaatu wa saalikun wa caabidun fi fanaa'in wa kaatibun qaadat lahu falsafaatu wa imaamun badila kulli juhudin wa qatibun liman lahu lxafalaatu wa waarithun asaara cheikh alxadimi min walidin saamat lahu darajaatu ibnu cheikhi muhammadi mbake faadal asmaa'uhu taati lakum bayinaatu yaa saa'ili kunyatahu wa hiya abdul yaa saa'ili kunyatahu wa hiya abdul jabbaari jammaat lahu alxasanaatu fa ismuhu muhammadu jo masamba almbakiyi minni lahu daawaatu wa salaatun wa salaamun ala annabii bal hum siqaatu kon euh, loolu ñu doon tënk rek ngir ñi nga xam ne mën na ca jëriñ ci anamu wolof ci gàttal wax ne yëkkat nañu am nuyoo bu sell bu teey jëmale ko ci koo xam ne day suñu xol sopp na ko lool koo xam ne suñu xol danañuy màng di ñu jëme ci moom waaye itam suñu cofeel itam topp itam cër yi loolu itam dañ koy jëmale ci boroom xam-xam koo xam ne géeju na ci xam-xam yu baree bari koo xam ne itam raw na ci ay uslub maanaam ay xeeti xam-xam yu bari ak soobu nag jaar ci yoonu yàlla mën lu néew itam la ngay ngay gis nit koo xam ne nit ñi di sóobu ci anam gu mel noonu lu néew ndax nit ñi ñu ci bari dem àdduna kese rek lañu ñu moom nag saalig la ku sóobu la kuy jaamu yàlla itam la ku jeex la tam koo xam ne baraa na ay xeeti xalaat ak ay xam-xam yoo xam ne wommatu na ñeel ko ci ay mbindam imaam la itam koo xam ne ma ngi joxe géppuk farlu imaam la itam koo xam ne ma ngi joxe géppuk farlu koo xam ne waaraatekat la ñeel képp koo xam ne am na ak càggante koo xam ne dond na itam ay mbóot ci cheikhul xadim ak wa waa juróom woowu nga xam ne boroomi daraja yëkkatiku la ñu gën koo xam ci cheikh mouhamadou Diop Massamba Fadil des na ko dàkkantal itam abdul jabbar kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ jotoon tënk ci xasida gi njukkaliku ko ndax lii mu def itam bëgg itam bëgg ñëpp jariñu rek moo ko moo ko waral kon kooku yeyoo na njukkal yeyoo na njukkal lii nag lu tuuti la ci liñ mën a def ñi nga xam ne itam nga xam ne itam mën nañoo liir ñuy jël téere yi yéen ci mën na jariñ bu ñu xamee ko mën a lii tam ñu jënd ko jox ko donte moom sax lu ci bari du ko jaay da koy joxe noonu rek gratuit waaye itam ku ci mën a barkeelu di jënd liir wala nga jënd joxe ci ñe ko man baax na kon may waxaat tam ne am na yéene yi ndax téere téere yi bind bari na ak ci yeneen domaine ak yeneen yu ñu mën a jariñoo waaye nësërën na yéene na buñ demee ci yu mel ne événement ba nit ñu gën a mën a bari ñu mën caa mën a jariñu ñu defati yekk yu mel nii ndax lii lii euh, ndam la ci dëkk bi yokkute la ci dëkk bi euh, dana jur itam yeneen yu bare bare bare incha allahu rabbi kon xam naa foofu la ñu tëjee jotaay bi di sant ñëpp di jéggalu ñëpp itam ci kàddo yi xëy na lu ci dëng ci ñun la waaye dañ jox sëñ Moodu nag bu ko defee incha allahu rabbi moom mooy amee kàddu yu mujj ak ci euh, sëñ bi di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin defe naa de bari na ndaje yuñ ndaje waaye ndaje mu mel nii de moom bariwu fi moom ndaje mu mel nii bariwu fi de ndaje mun jàpp ci diggante bu diir bu gàtt nii mu réussir nii amee nii solo bariwu fi kon nag sëñ bi li nga sàkk ko ñun de liñ liñ bëggoon am nañ ko ñu ngi ñaan yow li ngi ci bëggoon nga am ko ci ñun de liñ ci bëggoon am nañ ko ci yaa ngi doon yërëm nit ñi sax ci ne bu min wi jotee nañ kii ndax ñi war a xëy dem tool ak ñi war a jóg ci guddi gi waaye mën nañ koo fanaane ba bët set xanaa xam li nga toggoo rek ci ay jaamu yàlla ak yeneen waaye mën nañ koo fanaane ndax nit ki moom li mu bëgg nga di ko jox du ca doyal mukk te lii rek lañ bëgg sëñ Fall rek lañu bëgg dëkk bi rek lañ bëgg te loolu rek nga ñu andil ngi lay sant bu baax di la ñaanal loolu bàyyi góor a wax rek jërëjëf ah lii sëñ ji li wax nag ci lu dëkk bi war a ittewoo alhamdulilah waa dëkk bi dëkk bi de ñi ko jiite moom dañ dañoo bàyyee lépp suñ borom bàyyi lépp borom dëkk bi waaye bu fekkonte ne ñuy jàmbat lañ wala ñuy wax loolu moo dem moo law ba ci ñi fi dëkkee lépp dañ ko bàyyee ci loxol sëñ bi rek lu jot lu fi war a ñëw war a ñëw dana fi ñëw lépp dana fi ñëw waaye li liñ bëgg ku ñu ci dimbale daal fi mu ne nii muy yoon wi ci diggante bi 19 kilomètres rek la ñu ngi koy sàkku daal fépp foo xam ne wax àgg na fa ci ñi nga xam ne loolu ñoom la war ñu def ko ndax ñun de li war suñ digg ak ñoom ñi koy def village yi nga xam ne moo 78 euh, village yi aju ci Touba Mosquée de benn bu man Touba boobu amu ci te fuñ teew fu ne ña ngi fay jàmbat ñett yooyu muy yoon wi ak ndox mi ndax benn forage moo fi ne boo xam ne sëñ Fallou moo ko fi bënoo daanaka boo xoolee li fi ne lépp kilifa yu dëkk beeku bi def euh, gouvernement bi euh, daal ñu ngi jàmbat waaye gisaguñ ci lu am solo ndax poste santé bii fi nekk sëñ Modou Bousso Dieng moo ko jàmbat nañ leen ab euh, logement sage-femme bi wax naa ko ci maire bi ay yoonu yoon bind naa def ko ba ba léegi ñëwagul ñu ngi leen koy fàttali yoon wi ñu ngi leen koy fàttali courant bi it Alaaji Baara moo ko fi indi woon waaye dafa bëgg dañoo bëgg mu gën a tasaaroo def nañ demande bi ba dugal ko ñi nga am yaakaar ñuy dugal ko ci bi sëpp màggal gii di ñëw nii incha allah wax nañ ko ñu ngi ci yaa ñaan suñ borom sottal ko loolu daal ñett yooyu daal muy yoon wi ak ndox mi ak dolli courant bi ak poste santé bi ñu defal ñu fi ab euh, logement sage-femme bi ñu ngi koy sàkku ci ñi nga xam ne loolu ñoom la war ndax ñun li war suñu digg ak ñoom ñu ngi koy matale ñu ngi sant bu baax dellu di gërëm. ba tey lu jëm ci euh, poste santé bi sëñ Modou moo ko fi defoon mi ngi bëgg a am ab diir xaw naa jar na yeesalaat ak yokk logement sage-femme bi ambulance bi alaaj baara andi woon na ko fi. dafa paan ba léegi mi ngi gaare fee ci hôpital Ndamatou Beye weer yee ca ginnaaw rek dem naa ci surung doon ko doon ci dox ay jéego pour ñu defar ko waaye ba ma ko wonee ñu seen xam-xam jëm ci wàllu googu dañ ne wut beneen li ko defar wut na beneen te du tax mu baax kon loolu bokk na ci li nga xam ne dëkk bi itti woon na ko lool ndax docteur bi docteur bi yi fi nekk jàmbaar lañ lool waaye eh, bu ñu waree ku am ku ñu war a jàllale dañuy téléphoné Touba di indi sage-femme diggante boobu nag ak métti métti la ci yoo xam ne soxna yi nga xam ne ñoom ñooy jànkoonteeg ak kii ak yoonu métti bi kon loolu itam eh, soxlal soo xam ne soxlas dëkk bi la. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu ñoppee nag ñu jox sëñ eh, delloo delluwaat salaat cant gi rek ci waa dëkk bi ak seen taxawaay. loolu dañ koy teg ci loxol euh, jëwriñu xale yi bi nga xam ne wax nañ leen liggéey bi teg ko ci seen loxol ñoom ñëpp ñu taxaw ci ba lépp sottee nii ci njiitul bas ndox mi ak ñim ko àndal ñëpp euh, ba taxaw ci taxawaay bu rafet nii sëñ bi ñu ngi lay ci yow nga ñaanal leen nag li nga xam ne nii lii ab tàmbali la mu nekk looy sax loo xam ne suñ borom dafiy def xéewal yoo xam ne boo ko wooteetee kenn ku nekk ci dëkk bi rek man ko taxawalal boppam waaw ñoo ngi ñoo ngi sàkku nga ñaanal gone yi ñaanal jigéen ñi ñaanal mag ñi ñaanal ndaw ñaanal ñëpp waaw sëñ bas kon ñu jox la nga dox say soññee sëñ Modou woo ko ne ko def yow laa def jëwri dafa defoon ab xasaay xasaay googa wenn bay rek laa ci wax nga xam ne moom dafa mel ni guddi gi moo taxoon mi di ko wax ndax dafa ba nga wax ci biir dafa ne Touba Bogoog li ko wër ak cant war nanu ngir xéewal yu rek yi ñu am fii kaar ñu koy amati kon xéewal yooyu ñu doon waxtaane fii mooy lii rek jërëjëf noo nga amaan mbégte bu baax di siyaar ñëpp te yita ci siyaare bi sëriñ Moodu Masamba moom Cheikh Modou Fadal di ko ñaanal yàgg lool te wér waaye li jiitu suñu kàddu mbooy mbooloo mi yépp maa sa ñaanal sëñ Moodu mii mu ñu àgg fi loo tànd ak ndax lii tawféex la tawféex la joo xam ne neexu la wax ndax jataay bu mel nii yombul xam-xam bi fi génn yomb la gis njariñ lañ fi jële yomb la am kon nan santaat suñu borom bu baax mu ñuy dimbale may ñu kàttan ak wér ban mën fekk jataay bi kon liñ fa jëlee lépp ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ni mooy borom lépp mu defal ñu tawfeex ñu mën koo jariñoo ci barkeb Seexul Xaddiim waaye kàddu yi du gudd dañuy santaat bu baax rek di gërëmaat bu baax a baax sëriñ bi ndax kat ñun day waa dëkk bi ah dayri bi lañ am mooy dayri soppe suñu fàllu bi dayri bi nag mooy dëkk bi dëkk bi mooy dayri bi ndax lii ba nga joxe jox ndigal sëñ Modou mii moom bu ñu joxaa ñu ndigal wax dëgg yàlla booba ak léegi ñëpp duna bàyyi seen yitte jëm jublu si yitte ji te jublu giñ si jublu nag wax dëgg yàlla duñ ko rëccu ndax moom lañ am li tax nag jataay bi bi ñu ko suñ mëru waxee mu neex ñu lool day lu namm lool ndax nun ndey mën naa doon juddoo sëñ Fallu yaroo sëñ Fallu xaj na nag ay tut waaye di bëgg gën bëgg sëñ Fallu mën naa leen nii ko tudd ci aw làmmiñ day wane ne jataay bi rek boo xoolee nii rek ni mu ni mu taaroo ci diirum ñeenti fan nga xam ne ñii la ñuy woote mi ngi dëgg mi la si ñoom ndax kat boobu ak léegi wax dëgg yaar jamono li muy xat-xat ñëpp doo bàyyi seen yitte jublu si yitte ji ndax ndax mu amee ko nu ko bëggee seen yitte mooy lenn mooy ni nga bëgg jataay bi mu taaroo ni rek loolu rek moo nekkoon suñu yitte kon nag ginnaaw mel na nii ba toll fii kon alhamdulilah kon lépp luñ ci jëlee yàlla nañ ko ñëw ñu rit nag nan teet daal suñu laxasaay te xam ne ab nut du wàcc lii ab soññee la lii dañoo dàggiwaat bu baax a baax a baax a baax jataay bi kat wax dëgg yàlla képp ku fi jóge tey war ngaa simmi ko waat te xam ne li nga fi jëlee man mën ngaa dund ba dee doo ko dégg doo ko gis tey doo ko xam bu ñu yàlla dimbalee ba li am tey nan sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ñun de suñ xol seet na lool suñu xol suñu xol seet guy kon daal ñun suñ xol daal tooy na sant waa dëkk bi yëpp maas nañ sant ñu ngi lay maas di la ñaanal it fan nu gudd loolu waa ndëg wér li nga bëgg liggéey sëñ Fallu yàlla na nga ko defee ni nga ko bëggee ci barkeb sëñ Fallu te ànd ko waa dëkk bi yëpp ànd ko mboolem jullit yëpp mboolem taalibe bi yëpp kon nag ñu santaat bu baax ñi nga xam ne mooy bam rajo yii na xam ne mooy maxari rajo yi lépp wax dëgg yàlla du ko joxe àddi yi ban ko waxee la ne loolu de amu amul lu ma ciy laaj ndax dëkk bi sama dëkk lépp lu ma fa am it ñoo ko bokk mu indi matériel bi yëpp di gis ne ni mu taaroo wax dëgg yàlla kon ñu ngi ñaan it ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax matériel bi yokk lool ba yéen ji am ci dëkk bi ñëpp rek kenn ku am nga yéen a waaye nag. nii la ko suñu borom dogalee kon yàlla na ñu dolli tawfeex baax a baax a baax may fan gudd loolu ànd ak wér. mel na ni loolu moo doon kàddu yu mujj yi defe naa li ci des rek mooy sëñ bi ñaan ñu yeewee ko ba beneen yoon te suñ boroom dimbali ñu ba ñu yàggatee a teewe mel nii kenn bañ a manqué ñu tal ko te man ko itam kon bu sëñ bi ñaanee ba pare itam ñu toog ni toogee woon ba. sëñ bi génn ba kii ñu doog a jug baraanil baaxi min al amraadi wa kaba man ankara bi i'tiraadi lahu sukuri ala xayaati abdan xadiman faaza bil ayaati